chercheur nekk it écrivain professeur ñu ngi lay euh, nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu sama nattango yi di nuyu nag ki nga xamante ni mooy sama àdduna mooy sama àllaaxira sëñ Muntaxa Mbàkke di ñaan mu yàgg fi lool. Mhm. di nuyu sama sëriñ bi nga ni mooy sama wasila sëriñ euh, Modou Abibu borom sunnatu rasul di nuyu képp koo xamante ni émission bi di ko seetaan di ñaan yàlla lépp lu ñu wax mu jëriñ Sénégal. et li ma ñëpp xamee. je ne donne pas mon opinion personnelle je donne des avis. Mm-hmm. mon opinion personnelle. mooy réew mi kenn mënu ko suqali ko dul sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. jërëjëf di la sant euh, de la convergence des cadres républicains bokk la république nekk it membre de la cellule communication bu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay leen ziare di leen balu ax di am mbégte aussi revenir euh, à cette émission sept débat sept mhm. à débattre mhm. euh, di nuyu <coughs> euh, l'ensemble des responsables de l'Alliance pour la République de Benno Bokk Yaakaar mais surtout de la convergence des cadres républicains bi nga xam ne fala bokk dirigé par notre frère le premier vice-président de l'Assemblée nationale l'ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr mhm. di nuyu le département de Rufisque ma commune Sangalkam et Kër Daouda Sarr mon village natal sans oublier la diaspora bi nga xam ne dama fa am aussi njaboot un petit coucou à ma petite fille euh, Tenemba. merci beaucoup jërëjëf di sant bu baax a baax sunu ñetteelu gan ñu am plaisir moom it dala ko ci plateau bi mooy Aliou euh, Diouf il est responsable politique coordonnateur de la République des valeurs fële ca Mboro bokkit ci cellule ci cercle des cadres pour euh, République des valeurs Aliou Diouf ñu ngi lay nuyu. Moundou profité di fay professeur di fay suñu mbokk monsieur nuyu ñëpp ah di nuyu téléspectateur bu 7TV euh, euh, di nuyu tamit euh, personnel beeg ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñu permettre tey téléspectateurs yi man ñu suivre di nuyu comme ni ko waxee responsable république des valeurs yëpp jiital ci suñu président bi nga xam ne depuis boobu ba léegi mu ngi woon ci tournée. Mm-hmm. di nuyu tamit département bi ma jógee mooy département de Tivaouane di ñaan yàlla tamit li liñ fiy wax mu nekk njariñu askan wi parce que ñu ñëpp doon nekk au service de la nation. donc bu nekkee au service de la nation donc war na de temps en temps ñu fàtte suñu bopp. ñu wax luy jëmale askan bi kanam. c'est important di la jëf di la sant bu baax Aliou Diouf sunu ñeenteelu euh, gan mooy Birame Khoudia Lo responsable politique également secretaire général adjoint bu parti bi di Pastef les Patriotes Birame Khoudia Lo ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu sama co yi professeur Abdou Aziz. di nuyu le responsable de euh, république des valeurs di nuyu comme ni mu ko waxee kilifa diine yépp yi nekk ci Sénégal di ci jiital sëñ Muntaxa Mbàkke di nuyu sama sëriñ sëñ Bas euh, Fallou waaw di nuyu également waa Pastef yépp di leen massaw ci coono bi ak euh, li ñuy subir à chaque fois ndax bëgg réew mi bëgg réew mi jëm kanam di jiital donc Ousmane Sonko waaye di nuyu sama waa kër euh, fi ma dëkk Ndar ak euh, parcelles yëpp ñu ngi leen di nuyu di ñaan lu ñu fi wax mu jëriñ askan wi c'est extrêmement important parce que toll nañu fi nga xam ni nit ñi jiital nañu leneen lu nga xam ni euh, seen intérêt la wala benn intérêt waaye jëmul ci intérêt askan bi ñuy ñaan yàlla wëlbati seen xel ba ñu fonk askan bi teg leen ci kanam parce que képp ku fi am dara nag askan bi moo la ko jox. jërëjëf je vais avec vous benn parenthèse ñu dugg ci li nga xam ne moo ñu tax a jug parce que dama la nga ne yaa ngi nuyu sa sëriñ euh, ñu déglu tamit jamono yi weesu benn kàddu kenn ku bokk ci yéen euh, di maître Ngagne Demba toure mu ne projet bi li ko tax a jug mooy fexe ba nit ñi bàyyi di jaamu nit jaamu yàlla euh, loolu naka nga parce que ñu bëri interprété nañ ko neneen. projet li ko tax a jóg mooy moytu di jaamu nit. waaye di jaamu yàlla du question projet bi en tant que tel parce que ci article yi mu wax gisuma ko ci. mais li mu wax dëgg la dama koy dëggal loolu mi ngi ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax. sëñ Touba loolu la bind bu kenn jaamu nit nañu jaamu yàlla. jaamu nit mooy lan jaamu nit mooy nit bañ a nekk ci dëgg yow nga koy far ca la muy wax te mu wóor la ni dëgg baa ngi nii. dëgg mooy suñu borom suñu borom bëgg la dëgg la bëgg. Mhm. tey bu fekkee ni euh, gis nga ku nga xam ni mu ngi def lu nga xam ni dara du ci dëgg yow sa intérêt personnel tax nga koy topp mais yaa ngi jaamu nit. Euh, nii ñu nekkee également euh, en Afrique di topp bëgg-bëggu tubaab yi ba ñuy ay ay intérêt supérieur yu ñu waroon am ñoom ñu koy am loolu ñu ngi jaamu tubaab bi. Mhm. mais man gis naa ni jaamu nit aussi nuñ koy waxee mooy par exemple. ki may yóbbu si suñu borom nga xam ni mooy sama la mais jaamu ma ko mais dama koy topp donc loolu yëpp dama leen ko bëgg leeral ngañ dem li mu bëgg wax. Mhm. mooy nous ne sommes pas au service de l'Occident. c'est pour ses propres intérêts et non pour la vérité. merci beaucoup professeur dama ñëw ci yow parce que yow souvent dañuy dégg la solution est xadimique est-ce que du ñu mel ne yow la maître Ngagne Demba Touré di waxal ak seen rapport seen relation ak kilifa diine yenn yi. ça veut dire que ngañ déglu naa ko et j'étais déçu parce que am na temps boo xamante ni j'étais vraiment un fan de ngañ par rapport à ses analyses mais juridiques mhm. mais dafa am loo xamante ni c'est trop sensible mooy suñu rapport suñu relation ak kilifa diine yi ak tarixa yi mhm. man quand euh, je dis que la solution est xadibik mooy li ma gëm dama analyser le monde gis ni monde bi di fonctionner ma xool Chine bi nga xamante ne mooy première puissance économique actuellement mais du monde que ñu nangu que ñu ñàkk nangu. Mhm. kan moo leen libéré benn nit Mao Zedong la vision agricole de la Chine mu bëri ay nit xool lan la leen war a dundale ma xoolaat euh, toujours en Asie l'Inde Gandhi mu dem du mooyu les Anglais pour ñu rester dans le consommé local Inde génn ci ñu rester dans le Moyen-Orient le prophète Mohammed sallallahu alayhi par la spiritualité mu libéré. Mhm. libéré waale euh, ñu. le général de Gaulle cette fois-ci du ma dal ci kawam mu def li nga xamante ni moom moom moo arrangé peuple am libéré la France France nekk nag ñun suñu adversaire ma xool loolu lépp di mais ñun Sénégal depuis plus de soixante ans voire même plus de cent ans nous sommes dominés par l'Occident par la France te teguñu ko fenn mais nan la ñuy def pour génn ci. pour ñu génn ci il faut ñoom idéologie amuñu idéologie mais am na kenn koo xamante ni liggéey na muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul mhm. Serigne Touba li bu njëkk def mooy tabax nit bi mu tabaxee nit mooy mu def 712 personnes yoo xamante ni ci sant yëpp mu seexal leen orienté leen mu dem fenn ramification yooyu ñoo ñëwaat par la mutualisation mais des efforts bi fi Serigne Modou Moustapha def bi ma analyser loolu lépp jàng jàll batul muraaxib ci laa ni kon sëriñ bi ci boppam te duut na baaraam foo xamante ni ñun ñëpp bu ñu fa taxafee danañ dem bu mooy wax ni la vision elle est xadimique la solution elle est xadimique mm-hmm. maam Baye Niass mi ngi ci biir maam Limaamu mi ngi ci biir maam Maodo mi ngi ci biir parce que cette solution bay xadimique n'est rien d'autre que la résultante de la vision mohammedienne ndax 95 pour cent des Sénégalais ay musulmans lañu waxuma nit ñi ñëw leen doon murit dama xool ni pour le fonctionnement mais d'un état il faut un champ de vecteurs ci champ de vecteurs yooyu ma xool lan la ci Serigne Touba def wala doomi Serigne Touba la leen ci def. mais say wax c'est c'est dans le cadre économique culturel mais pas spirituel voilà. ça veut dire que waxuma nit ñi ñëw leen doon murit. ok dama ni nit ñi nañu xool toutes les théories économiques euh, du monde la théorie de John Maynard Keynes le la théorie de Ricardo de de, euh, de David Smith euh, ainsi de suite ñooñ ñëpp liggéey bi ñuy liggéey au finish mooy quelques nit ñooy jëriñoo mais l'ensemble mhm. ça veut dire que cette économie dafa am lu ci manqué c'est la spiritualité sëñ Touba ñëw andilul ñoo loo xamante ni sëriñ Touba day accompagner doomu adama yi mais donc pour quelle raison ñun ñu war a mën a anam ñu ma ñu bañ a ñu war a am complexe en tant que sénégalais war a accepter di la théorie de John Maynard Keynes moo libéré le plein emploi dans le système occidental Serigne Touba proposé ñu loo xamante ni ñun ñépp danañ àndandoo te kenn du ñu mën a galgal donc dans cette vision xadimique je répète je persiste waxuma nit ñi nekk leen murit leer na dama ni nit ñi nañu xool les champs de vecteurs yi doxal adduna bi je donne deux exemples pour ngeen xam ni maanaam bu ñu toppee Sëñ Tuubaa danañ dem le plus grand agriculteur du monde avant Serigne Saliou c'était le prince Charles de trente mille hectares Serigne Saliou ñëw def xel comme quarante cinq mille hectares waxuma ndoga waxuma yeneen yi le premier sénégalais qui a pensé la mobilité pour tous pour les sénégalais Serigne Mourtala la projet Al Serigne Mourtala moo njëkk def horaire ci Sénégal l'éducation pour tous Serigne Mourtala la donc à partir de la ba pare nag mu am ñaari éminence yu nekk biir Sénégal co-actuel ak ñun muy Serigne Saliou ak sëñ tax Serigne Saliou wax loo xamante ni sénégalais yépp la waxal sëñ Touba dama jiital ngeen nangul ma ko may dem di leen gestu rek di dem di leen gestu rek bu ma demee ba gisatuma leen ma taxaw dégg leen bu ma taxawee dégg leen boo leen ñëwul ma dëpp ñëw jël si leen mhm. bu ma ñëwee fekk ngeen dem ma jiital leen du leen bàyyi mukk du leen bàyyi mukk ndax lii di l'islam lii di taalibe amul lenn lu ma ci yàq du ma fekk lu yàlla yaatal ma koy xatal les sénégalais n'ont pas ñaari xalifa jaar bi Serigne Mountakha bi mu ñëwee comme nit ñi dégguñu woon li Serigne Saliou wax mhm. mu ni ñëw leen ñu dem ku dem ma dem ku demul ma dem Serigne bi dem na wala demul <laughs> université de 39 milliards. donc euh, élément yooyu nga xamante ni njabootu Sëñ ñoo ngi koy teg. Mhm. sur la surface loolu la bëgg ñun sénégalais yëpp ñu def abstraction ci suñu confrérie yi xam ni dans les autres pays y a dafa am benn nit bu taxaw dajale mbooloo mi ci dara. merci un meneur un leader. un meneur un leader Chine Mao Inde Gandhi fii ci réew mi nag. sëñ Touba la. jërëjëf professeur. Hmm? merci dina ñëwaat ci yow bu ma ko mayee. ñu bëgg a def rek voilà Aliou ma ñëw ci yow par rapport ak propos yooyu nga xam ne def na polémique euh, naka nga koy comprendre. Euh, dafay wone niveau débat bu faible. parce que defe naa suñu réew bi défi yi ñuy jànkonteel yépp ñu ne santé ñu ne dëkkuwaay ñu ne école ñu ne lépp bu ñu bëggee jël ces genres de débat. jël lii relégué ko au second plan parce que kon xamaguñ fu ñu jëm. xamaguñ lu ñu bëgg. en tout cas ñun en ce qui nous concerne république des valeurs débat wu appartenance su loo doon ak loo doonu amu fa parce que dañu jàpp ne loolu léewuñu war na nu mën a nekk le musulman le chrétien l'hébreu le athée mm-hmm. ñoom ñëpp ils ont droit à yi te buñ choisir ñoom nekk sénégalais nekk athée wala nekk ñu leneen dañ leen koy nangul le vivre ensemble le vivre ensemble loolu waru mën a tax tere ñu bokk parti politique parce que objectif bi c'est le Sénégal mm-hmm. donc ñun ñu ngi ci dynamique boobu su ay appartenance ak loo doon ak loo doonul loolu du lu ñuy gérer ci yi doguma la day am ñu gis danger ci benn appartenance c'est-à-dire ni boo seetloo aux États-Unis en France dans certains pays yenn attentat yi am au de l'islam daa am ñoo xam ne ñoo koy wuyoo mm. te souvent Sénégal dañuy jékki-jékki bëgg euh, dendale ñooñu ak parti bii di Pastef loolu aussi c'est assez dangereux et grave waaw yaa ngi wax débat économique santé c'est important mais avant loolu foog stabilité am aussi moi je pense que ne personne n'a intérêt mm-hmm. personne n'a intérêt à que réew mi basculer d'une certaine manière. Mm-hmm. comme muy Pastef comme muy keneen ñun ñëpp ñu nous avons le devoir impérieux ñu préserver réew mi ni ko suñuy maam préserver woon ba ñu jébbal ko suñuy set ñu dem parce que nag que djihadiste cest dire bu doon modèle boo xam ne war nañ ko mën a adopté kon mag ñi ñoo koy njëkk a adopté mm-hmm. te ñi ko adopté ba léegi gisaguñu fu mu leen yóbbu donc on doit faire attention ñi ko adopté ba léegi. Mhm. fa mu jaaragul ba léegi. mu am kay désolation la fa indi. Mhm. guerre tuerie viol et cetera et cetera. avec ça ne nous voilons pas la face. Mhm. donc ñun mën nañu nekk murit tiijaan xaadir laayeen parce que loolu islam bu islam bu. Euh, modéré modéré la ci ci tolérance mais ci pratique. bu bu taxaw la ci pratique parce que Sénégal. quand même doo fi dox réel te gisoo fa jàkk nit ñi dafa julli. maintenant amuñu intérêt du Pastef du keneen am intérêt di liewu ñu nga xamante ne nii fanu jaaragul gisuñu fa résultat bu baax fanu jaaragul désolation la dafa gis. fanu jaaragul tey ñi ngi xeex pour ñu génn fa. Mhm. kon ku ku am xalaat ku am vision. ñooñu di nga leen may sens di nga leen di nga leen moytu. merci beaucoup Abdoul Aziz yéen waa affaire laay wax vous avez sauté euh, sur la vague jàll ci propos yi pour gën a euh, indi li ngeen doon wax ci waa Pastef par rapport ak seen euh, comportement seen attitude seen bëgg-bëgg reléguer au second plan les les les chefs religieux de de notre pays. ben absolument d'ailleurs ce que je vais vous lire hein, un article qui n'est pas de nous. Mm-hmm. nga xam ne c'est en fait les les patriotes ñoom ci seen bopp. ñooy demande par rapport à l'article 5 des statuts du PASTEF et du Dahwa bi nga xam ne moom la ngañ dem ba Touré wax ci benn vidéo bu nga xam ne gars yi partage partagé nañ ko mu viral dans dans les réseaux sociaux euh, Ngagne Demba Touré dafa tenu des propos yu nga xam ne en se référant à l'article 5 des statuts ci seen parti partie disant que disant que disant que euh, il il juge contradi jugeant contradictoire et flagrante avec la réalité les adversaires les reprennent en cœur dans le but euh, de nuire mais quand le frère Ngagne Demba c'est un pastéfien qui parle en renvoyant à l'article il ajoute à la confusion mm -hmm. et ne dit pas la vérité surtout dans le passage où, où il dit que le projet PASTEF n'a d'autre objectif que de substituer la soumission du peuple au ciel à sa soumission aujourd'hui aux hommes ça veut dire déjà au sein de c'est-à-dire moi je comprends euh, le fameux Ngagne Demba Touré donc il était dans la manipulation pure et dure non seulement il dit pas la vérité parce que ce sont ses propres partisans qui l'ont démenti en disant que ce qu'il dit n'existe même pas dans le dans le dans le, le dans leur statut quand il parle de cinquième et le préambule dont il parlait c'est pas vrai mais nous ne sommes pas dupes c'est-à-dire aujourd'hui nous savons tous que le Sénégal est un pays profondément religieux mm -hmm. ça c'est une vérité absolue te ñun ñëpp xam nañ je crois que je l'ai dit une fois ici dans votre émission en disant que le Sénégal quand pour le gérer il faut le gérer aussi culturellement quand je le dis j'avais j'avais dit que aujourd'hui si c'était vendredi demain et que Sëñ Mountakha demande aux Sénégalais de venir prier vendredi à tout Touba je ne parle même pas des mourides mhm. mais les tidianes les laayeen tout le monde euh, va se converger à Touba pour répondre à cet appel là et que même des gens comme monsieur Thiam vont peut-être affréter des bus qu'ils vont donner aux talibés pour y aller mhm. et que les politiques quand ils ont besoin de faire de rencontres ils ont besoin de prendre des cars de donner des boissons des sandwichs pour faire venir les gens ça veut dire donc ces ces marabouts là leen war a jox considération ak mm. respect c'est pas pour rien qu'on ñuy wax ne ñoom c'est des régulateurs sociaux et vous vous rappelez la fameuse vidéo de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh à l'époque à l'Assemblée nationale qui parlait du temps de Lamine Gueye et que cette vidéo la était revenue c'est comme si il faisait comprendre à la population, en tout cas euh, le régime qui était en place à l'époque, Wade pour changer la constitution sur beaucoup de choses. donc yooyu dafa am lu muy jàngale que ñun dañu war a comprendre ne Sénégal dëkk. Euh, c'est vrai que nous ne sommes pas un pays euh, maanaam bu nga xam ne day fonctionner ci modèle islamique nous nous sommes un pays laïque donc administration bi gis ngeen ni muy doxee mais. dañu am ay kilifa diine yu nga xam dañu leen war a bàyyi xel et ñoom il faut qu'on le dise mhm. c'est-à-dire ils agissent de manière voilée c'est des grands manipulateurs la preuve lors des élections locales ils ont utilisé ça en disant que le Sénégal le président Macky Sall est en train de de de de gérer le Sénégal pour que l'homosexualité ñu légalise que ci réew mi tout ça et yooyu wax ko gëmloo ko nit ñi malheureusement et il y en a qui l'ont compris et tout Merci ça beaucoup. Mhm. et tout ça ñoom euh, cette manipulation là doit cesser et que encore une fois il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans ce pays personne n'est plus patriote que personne. Merci. Mais je termine par là. Il va falloir aussi qu'ils comprennent que ce pays-là nous appartient tous et que personne n'a le droit de faire sombrer ce pays qui a été construit depuis des années par les différents régimes qui sont passés, mais un pays tenu par nos guides religieux ki nga xam ne ñooy socle yi nga xam ne ñoo téye ñooy jin yi nga xam ne ñoo téye société bi. c'est extrêmement important certains vous reprochent d'être des manipulateurs euh, nee na aussi kenn amul droit euh, jaxase dëkk bi taal ko euh, ma bëggoon am sa avis ci li xew tey ci suba quand on a benn policier briser vitre Ousmane Sonko ci waroo jaar fii fii laay jaar ubbil sa porte ubbiwuma ko ñu bëri jàpp ne c'était une manière rusée détournée. Euh, de de de de de faire oublier li nga xam ne mooy euh, base du journée bi mooy la convocation de Ousmane Sonko ak les preuves yi nga xam ne waroon na ko yóbbu au tribunal de Dakar. ah la question la <laughs> xaw na ma jaaxal mais je vais rebondir ci question boobu après mais dama bëggoon ñëw ci manipulateur boobu ma je ne comprends pas les gens ont essayé toujours de prêter à Pastef ay propos yu nga xam ni tout le Sénégal l'a démenti aujourd'hui je suis désolé Personne n'a manipulé personne. Les propos de Gagne Demba, je les ai te noonu la ko jëlee. Que les gens en profitent maintenant pour jete le discrédit sur Pastef, man du ko nangu et ce n'est pas vrai et puis benn Sénégalais du ko nangu. Les manipulateur mooy ñi nga xam ni bu leen sëñ Mountakha woowee wax leen ñu wax benn benn wax ëllëg te kenn du leen ci gis mooy lan mooy euh, événement marché bi mu amee mais sëñ Mountakha bi mu ñu woowee ñun. ñëw wax ak ñun nanguwuñu teguñu yëpp si suuf tey lii di xew est-ce que loolu lañu diggoon sëñ Mountakha ñoom ñoo nekk di manipuler ñoom ñoo nekk toujours la ñu waxoon defuñu ci dara tey di jàpp nit ñi di def du n'importe quoi ça premièrement deuxièmement bu fekkee idéologie euh, xaadimu rasul la comme xaadimik man wax naa ko fépp Ousmane sonk loolu la gëm fan la ñu tegu ñun jëf jël ñàkk tedd moom moo amul Sénégal looloo tax Sénégal tardé ñii dañu bëgg duñu ñu ñàkk di tedd du ñu jëf di di jël surfacturation du n'importe quoi ay détournement mais yooyu mooy doo liggéey doo def jël jëf jël ñàkk tedd li ngay def mooy di jël alalu jaambur di manipuler di surfacturer di jël ay 6 milliards mais nit nan la mun a defee noonu ba pare di wax ni yaa ngi ci idéologie bu baax ñun sëñ Touba lañu gëm la preuve Ousmane Sonko bu demee Touba gis nga dama fa taxawee keroog il a à parler avec le xalif ci biir jumaa ji respecté na principe yi nga xam ne yooyu yëpp la jumaa béréb ba laaj defe naa vidéo yi ñu ngi fi ki yore bërëb ba wax na ci ba mu leer naññ ki nga xam ne bu duggee ci jumaa ji du simmi daalam ak kii simmi daalam dugg ci jumaa ji yamuñu d'accord bala ngeen di wax il faut ngeen xam lu ngeen dox. deuxièmement tey mais <laughs> ça montre tout simplement que nous sommes dans un pays de dictateurs tout simplement convoqué nga nit ki dem na wuy ji nga ni ko fii ngay jaar benn barricade nga këram ba kenn xamulatul fu muy taxaw nga ñëw indi sa force police GIGN mel na dañu nekk ci gerte tey malgré tout. mu ne mais loolu c'était à dans la mesure où Ousmane Sonko hier il a appelé ses militants a venir avec lui. mais xam nañ ne militants dañoo bëri donc ça peut dégénérer à n'importe quel moment. force de l'ordre seen dispositif. lu jaadu la. Kër Massar ñaata nit la ñu woon lu ñi waroon ñëw fii tey est-ce que Kër Massar gis nga fa lu tuuti lu débordé. mais fii centre ville la. mais centre ville ak Kër Massar. ñoo yem c'est le cœur de Dakar yemuñu je suis désolé. non attendez attendez on a euh, bu fekkoon ni dañu ñëw on a fois Ousmane Sonko génn ñu accompagner ko mu dem. te amul benn problème indi nga ay GIGN d' accord mais ñu taxaw fi ñu taxaw je la le mhm. indi nañ leen taxaw nañu dem na wuy ji di dellusi lu tax ñu naan ko fii ngay jaar ak bul jaar fi ñoo koy sàkkal fu muy jaar premièrement extirper que toj veeru otom je m'adresse à l'opinion internationale pour dire que ce qui s'est passé aujourd'hui c'est presque une tentative d'assassinat du président Ousmane Sonko. Vous n'exagérez pas. Parce que véritablement, on l'a extirpé et on ne sait pas la woo on l'a amené avant qu'il ne soit chez lui. Non, mais il était dans un véhicule, mais on ne sait pas. Il l'aurait dit. Ousmane Sonko amul làmmiñ am ci poosam. Attendez, mais pareeguma pareeguma je veux dire tout simplement que ki nga xam ni dafa nekk ci biir oto di dem këram nga dindi ko foofu quel est l'objectif ban objectif lañ ci am dafa doon dem këram. ñu ne ko jaaral suuf foofu bu jaar suuf bi on l'a extirpé premièrement deuxièmement nan ngay tojee verre oto c'est un nag foo ko mën a placer fan nga mën a placer police buy toj verre oto fan nga ko mën a placer man mii di wax ak yow parce que je vais plus loin. Mhm. sama costume bi xaw ma ndax gis nga wala gisoo ko Sénégalais yow gis nañ ko dama yore sama oto man ak Toussaint Manga di dox ci réewu Mbàkke yore suñu oto ñu topp suñu ginnaaw police. tiré à bu portant ci oto bi ba mu dugg ci biir ci biir oto bi ba lakk sama jaget fi mu nekkoon bu fa nit nekkoon nit kooku mën na dee tey ces actes là sont des actes criminels je le dénonce premièrement deuxièmement dem na këram toog këram ni dafay def conférence de presse dañu ko bloqué ni ko doo génn mu bëgg dem ñu arrêté oto mu wàccee di dem ñu ni ko doo dem nous sommes dans quel pays c'est de la dictature. d'accord professeur c'est de la dictature li xew tey ni nga ko euh, premier élément bi ma bi ma intéressé parce que moi je suis dans l'objectivité scientifique. Mhm. la vérité. Euh, Abdoul Aziz joxe na benn élément boo xamante ni il a une lecture bu mu def quelqu'un qui a commenté les propos de Ngagne. et que. Euh, Biram Khoudia a dit clairement qu'il ne reconnaît pas ça dans l'article. Ça n'existe pas dans l'article. À partir de là, dans l'objectivité, l'Union ce que j'attendais, Madame Biram, ça n'engage que lui. Et puis on passe à autre chose pour rassurer les Sénégalais. Parce qu'il me semble que dans le préambule de cet article-là, ñuy reprochait Madame Ousmane Sonko ou les, ou les gens de passif, nous ont c'est quelqu'un qui dans son libre arbitre moo wax li mu wax sa n'engage que lui léegi c'est à nous euh, qui ne sommes pas de Pastef ni de l'APR ñun sénégalais yi ñoo leen war a interpeller ñu éclaircir comme ni éclairage bi maanaam biram joxe loolu la ñëpp di xaar fii ci Sénégal. moom laa expliqué économique. non ça veut dire que man ce que j'attendais li ma doon xaar ci biram mu ni ñoom seen article bi waxul loolu. Okay. c'est que Birame a dit ça n'engage que ku ci nekk mun nga ci am avie d'accord d'accord mun nga ci am ton opinion mais personnelle. loolu bu ko waxoon rek affaire bi jeex sénégalais yi continuer passer sur autre beneen bi mooy on a convoqué un citoyen sénégalais injudiciable mm -hmm. même bu fekkee ni il est leader de parti politique bi ñu ko woowee wuy sida lan moo tax cette effervescence jusqu'à lui demander que mu génn ci oto bi génnul ñu toj vitre quelque part on est en train de montrer une démocratie malade une police boo xamante ni franchement ni mu war a comporter ce n'est pas une police mais citoyenne léegi man je peux comprendre aussi comme ni nga comprendre que ni bëgguñu woon mu am débordement dans le pays ñoom ils ont vu ce que moi j'ai pas vu que nañ ko extirper génn ko yóbbu ko këram ñibbe bi ça prenait trop temps en fait. au régi au finish. Mhm. j'ai vu que ñu yóbbu nañ ko këram. directement après. maintenant les gens de Pastef ils ont quand même aussi le droit de se poser mais la question. bien sûr nan nañ koy extirper xam nañu tey fi mu nekk nii moi l'empoisonnement mun nañ ko def à n'importe quel moment même s'il ne veut pas le dire parce que ils n'ont pas encore même la preuve mais bu ñuy wax ni ça peut être un geste un acte mais criminel et essayer. d'interpeller l'opinion international c'est que tey fu mu nekk nii lu ko lu ko dal rek ñoom mun nañu taxaw ni buñ ko extirper pour woon ci diggante mais man euh, fi may taxaw yi mooy que le Sénégal va très mal. la police a mal agi la gendarmerie en brisant euh, vitre bi extirper ko. ils, ils n'ont pas le droit de le faire. ah ils pouvaient tout simplement l'encadrer imposer ko def benn cortège comme ni ñuy comme ni ñuy defee mais comme ni ñuy defee mais cortège le mm. président mais de la république ñoom bugguñu bugguñu woon maanaam mu am euh, mu am débardement ñu ko ñu ñu imposer ko nag dañuy def cortège maanaam yóbbu ko moo tax cette violence là toj nga xamante ne àdduna bépp gis na ni que nous avons une police barbare ça ce n'est pas mais est-ce qu'un justiciable moo war a imposer force de l'ordre bi ni ñuy doxalee aussi pas du tout loolu c'est que man it tey fi mu nekk nii nous avons une démocratie mais malade. Mm-hmm. et quelque part waroon na am sérénité que ça soit de la police citoyenne que ça soit du côté euh, du leader même du Pastef. Mm-hmm. mais tey fi nekk nii il faut que les Sénégalais raisonnent solution. et il y a un éminemment sénégalais boo xamante ni li mu wax depuis trois semaines nit ñi di ko saaga buuñ fa jaarul duñ dem. Alioune Tine Alioune tey fu mu nekk nii boo xoolee Biram Khoudia man ak moom ñoo bokk benn sëriñ. Mhm. boo xoolee Aziz ñun ñoo bokk benn Sénégal boo xoolee. Mhm. Euh, Aliou ak Aliou borom ñaawaay ak ñaawaayam. <laughs> ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal man ak maay xalif général ku lu ñaawaayam <laughs> dégg nga tey fu mu nekk nii il faut ñu toog waxtaan suñ biir. c'est important. il faut que ce second dialogue national là mu am rapidement. mais boo ma ko may professeur avant waxtaan bi bëgg naa mm-hmm. def tour table ci li xew tey. après boo ma ko permettre rek ñëwaat ci yow s'il vous plaît. d'accord donc tey fi mu nekk. waaw li police bi def. man d'accord ma ci honnêtement li ñu wane tey. Euh, et ça aurait pu dégénérer. ça aurait pu dégénérer parce que imaginer gisoon loolu ñoom it ñëw. ñëw yàlla rek a xam luy am. et puis tey fi mu nekk nii loolu moom franchement. Mm-hmm. on nous montre une police euh, de une police de délinquant de barbare yow entre policiers yi seen attitude ak Ousmane Sonko mu ñu wàcc oto bi wañ changé euh, itinéraire fan nga jàpp ne fa la problème bi nekk euh, on le regrette parce que mënuñu ko comprendre te dañ koy condamner parce que ça c'est une confiscation de liberté mm-hmm. mënuñu ko comprendre d'autant plus que bu doon ci ale bi la ñu ne dañu am contrainte de temps mais c'est au retour au retour Ousmane Sonko bu ko neexee mu jógee tribunal 10 heures egg këram 23 heures. mais ce n'est pas que lui ñi nekkoon autour di bloquer circulation bi aussi. mais moyens yi quelque part sax dégg naa benn vidéo ma koy wax. moyens yi police amoon ak gendarmerie mënoon na assurer ñu yóbbu ko ba mu egg te loolu lépp du am. comme un président de la république. non pas comme un président de la république. pas comme du président président daal dafa am garde présidentielle. maanaam Sonko ñu accordé lay importance yoo xam ne. non du loolu président de la République garde présidentielle la am ay motard la am extra extra am flèche am am lépp mais <laughs> euh, des voitures bancarisées loolu c'est pas comme un président de la République. encore là n'est pas non là n'est pas le là pas le débat. Mhm. le débat mooy dañu suñu police bi duñu leen xaratan parce que bu ñuy nelaw. ñoom ñoo tax ñuy nelaw suñu gendarmerie bi ak même chose on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain mhm. duñ ko def dañ leen di rendre hommage à chaque fois que de besoin mais tamit suñu gisee lu nga xamante ne nii jaarewul ni mu waroon a jaare dañ koy dénoncer amul dara ku justifier que ñu briser otoom mhm. xëcc ko génne ko ne dañ koy yóbbu rien ne le justifier et waroon nañ def preuve de mesure ba nga xamante ne nii en en tout cas image bi ñu joxe tey au monde. mu gën a reluisant voilà mu gën a reluisant et que sunu police la c'est-à-dire bu ñu ko xasee. sunu police la mu xas on ne retient que ça. on ne retiendra que ça alors c'était pas ça. c'était pas ça c'était que Ousmane Sonko un justiciable comme ni ko <laughs> doyen waxee. Mhm. un justiciable lan nu tribunal. kan moo ko convoqué un sénégalais comme lui ci kaw. da nga luubal am naa ci ay preuve mhm. kii ne ko indi say preuve ça c'est un débat terre à terre très simple ba nga xamante ne nii ça engage deux responsabilité individuelles. donc est-ce que Ousmane Sonko avait besoin d'appeler ses militants ñu ñëw accompagner ko aussi. non xam que on sait tous dañoo bëri Dakar. bu ñu jugee fu ñu jaar kenn du dem xam nga appeler appeler tes militants ñu ñëw gunge la wallu teen la rek ci pind ba la ñuy yem. kenn dugul ñëpp dugul ci bind ba la ñuy yem. Mhm. ce qui important mooy Ousmane Sonko aujourd'hui Mame Mbaye Niang dafa exercer son droit le plus absolu. Mhm. il se sent défamé mu porter plainte. ni ko ko yoon may fajalul boppam. Mhm. sànniwul xeer saagawul. kon kooku ba léegi nii ñuy wax mi ngi tegu ci yoon Ousmane Sonko moo taxaw mu mu ne am nay preuve am na rapport moom il a aujourd'hui l'obligation mu indi rapport. Mhm. d'autant plus que sénégalais yi dañ ko soxla parce que. Euh, ouais, Sénégal permet, vraiment d'en finir définitivement. non Sénégal Prodac Sénégal ku fi ku fi ku fi dëkk nekk dëkk. nga gis nit ñi ni sonnee suba teel boo dee xëy nga gis les femmes les braves femmes di xëy xale yi di xëy ku ci nekk yaa ngi wut loo daw ndukk-ndukk indi sa kër. 1000 francs da leen di të. Mhm. mburu bu ñu jëndal seen doom pour mu dem école jàngi da leen di të. c'est vrai ñun toog ne la am na benn nit moom ba nga xamee ni yéen li na bi ngeen di def yépp am na benn nit boo xam ne lekk na seen 29 milliards. mais loolu Sénégalais ñoo gën a soxla. Mhm. aujourd'hui ñun ñoo bëgg sax Ousmane Sonko bu dee wuy ji ñu encadré ko. accompagner ko pour mu dem indil ñu preuve yi. merci dinaa ñëwaat ci yow Aziz tey il y a des affaires dans l' affaire parce que l' affaire de départ c' était les vingt neuf milliards fu mu dugg ñu dem ba ci benn affaire ñëw ci mooy la plainte de Mambay benn affaire ñu ànd ak tey jii mooy tentative entre guillemets d' bu Ousmane Sonko loolu noonu yëpp ay kii la yoo xam ne voilà ça tourne autour du vrai vrai vrai bi nga xam ne reddition des comptes la très bien Mamadou Awa. après votre beaucoup. sur la journée mhm. euh, en fait euh, ma joie je veux que aussi bu ñuy analyser. Mhm. ñu def une analyse objective de la situation. et puis on comprenne une chose là où je suis pas d'accord avec professeur. que j'aime mhm. bien c'est que euh, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime je veux dire Ousmane Sonko est un justiciable quand les forces de l'ordre ñëw ci moom mhm. mu bunkériser wu ci oto ñu ne ko na wàcc ci oto bi il avait l'obligation d'ouvrir otom ubbi ñu wax ak ñoom si njëkk ak teraanga suñ koy bàyyi ci biir oto bi ñu bàyyi ko suñ ko nee duñ la bàyyi yow dañ lay yóbbu parce que bugguñu bàyyi la nga dem mu indi ay subversion ci dëkk bi xam nga lu tax mhm. parce que en vérité suñ la nee dañ la convoqué nga war a dem uy ji tribunal yaa xayti d'autant plus que vous vous rappelez de Ousmane ses déclarations j'ai le rapport avec moi d'ailleurs ñoom si seen biir waa APR sax dañuy jaaxle naka laay def pour di jot ces les rapports là c'est lui qui l'a en direct ñu di ko seetaan quand même c'est aujourd'hui c'est même Ousmane il y a pas la première convocation ñu mm-hmm. mu ngi wuy ji une première une jëkk bi demul woon ses avocats ñoo dem il n'avait pas porté les preuves de ces accusations aujourd'hui renvoi bi bi ñu doon demandé fu mu jógee si ñoom mm-hmm. parce que il n'avait pas les éléments d'appréciation yi nga xam ne moom lañ war moom la war a indi comme ay preuves par rapport à l'accusation il faut que les gens comprennent une chose au Sénégal aussi nit ñi dañu am ay njaboot ay famille bu ñu la diffamé wax ne yaa sàcc vingt neuf milliards u état bi mais vingt neuf milliards du ay kaf du ay kaf il faut que nit ñi aussi di xam ne euh, ak accuser doomu aadama rek dafa yomb ñëw taxal la te Olof Njaay mooy wax ne yow a yow a du mën a mën a eggu fa. fi yow egg du mën a eggu fa. bien. alors il va aussi qu'on comprenne les choses et qu'on ñu teg ko ci si quand on dit il il a détourné vingt neuf milliards d'abord c'est faux c'est totalement faux. comment en être c'est ko war a wax loolu non que je dis c'est-à-dire waxuma cadre justice moi je parle par rapport à l'administration de Prodac. ak Mame Mame Mbaye était c'est vrai ministre de la jeunesse bi nga xam ne moom moo nekkoon ministère de tutelle bu Prodac mhm. mais décaissement yi fa jot a génn c'est du ci biir Mame Mbaye c'était à hauteur de neuf milliards avant qu'il na parte à un autre ministère c'est-à-dire beneen ministre moo ñëw donc loolu xam nga boo nee donc Mame yi dafa sàcc vingt neuf milliards ça veut dire que ça c'est aussi c'est c'est c'est le même scénario par rapport au rapport de la Cour des comptes où on nous dit le ministère de la santé a détourné plus de mille milliards alors que en vérité le ministère de la santé a reçu lors de la pandémie que 45 milliards dans ce petit montant global yooyu 47 milliards ou comme ça mais il faut que les gens comprennent aussi que mënoo ñëw accuser nit comme ça mais il faut que aussi ñuy boo euh, d'accord moi je tout à fait tu sais moi je suis profondément démocrate. mais d'accord mooy. oui la première personne bu accuser Mame Mbaye. ben oui mais attends y a une différence. no benn rapprochement politique mën mën na ñàkk en fait. non y a attends y a euh, man ku porter plainte Mame Mbaye Niang ne dafa détourner xaalis bi mu war a dem justice gisaguma ko. buñ ko gisee ñoom nañ ma ko wax. Eh, non. kan moo ko dul porter plainte waa voilà donc yéen kon bu am na loo xam ne nag boo bu fekkee xam nga ne état moo war a def lii li ngeen war a def mooy da ngeen war a saytu wala ngeen bind mais waru leen accuser directement nit ki ne yaa def nangam maa ngi kii bi la épinglé danga nga sàcc. Mm-hmm. loolu c' est exagéré c' est trop dire. mais vitre bi ngeen toj. Euh, oui foofu xam nga ça je l' ai oui non je l' ai dit que. les forces de l'ordre ñoom ñoo amee l'État en tout cas moom moo amee le monopole moom moo amee le de la violence légitime ça aussi xam nga tamit nous sommes dans un état de droit et que dafa am yu nga xam ne la c'est la loi moo ko encadré mm-hmm. Ousmane Sonko est un justiciable sénégalais je reconnais moi Abdoul Aziz que Ousmane Sonko j'ai beaucoup de respect pour lui non pas pour sa personne Ousmane mais par rapport aux Sénégalais yi nga xam ne am na ñu nga xam ne gëm nañ ko moom mhm. ànd ak moom pourquoi je le dis Ousmane Sonko nekk na député par plus fort reste après mu ñëw continuer demaat élection. am 700000 voix. Euh, avant avant député yi sax am na ci élection locale yi ils ont gagné ay communes yu am dans tout ça donc euh, gis nañ ne mu ngi am benn benn puissance mu ngi yéeg. non man j'ai pas mu ñëw ci élection mu euh, ñëw ci éle très bien élection présidentielle. il est il est arrivé troisième. voilà avec plus de quasi. quasi 700000 Sénégalais nga xam ne. moom la ñu àndal kon ne serait-ce par rapport à ces Sénégalais là moi j'ai beaucoup respect par rapport à eux. mais est-ce que vous, euh, de manière respectueuse. jëm jëm mais raison pour la non attention li ngeen war a njëkk a déplorer c'est quoi. c'est-à-dire c'est le comportement initial c'est-à-dire Sénégal mooy dëkk bu nga xam ne bu course amee yow ñu daw course am nga jël paie professeur jël deuxième. Biram Khoudia jël troisième. Mhm. dañ la fiy bàyyi dañ la fiy bàyyi duñu sax tudd bàyyi fii bàyyi fii le deuxième naan pourtant troisième bi ak a mën a daw. Ah, bala ngaa wax troisième bu mën a daw. mais ki jël paie doo ko wax. doo ko doo wax ki jël paie mais ba gagné aussi est na. deful ba non deful ba gagné. <laughs> non may ko cinq secondes may ko cinq secondes. cinq secondes ma may kan professeur waaw am na lu mu a wax après nga yeggali. oui. lan laa wax loo xamante ni c'est en contradiction ak li nga wax parce que tu me reproches euh, nga ni d'accord ak man sur quoi. ah, ah ok j'explique fi ma daan waxee d'accord ma euh, c'était par rapport ak Kassirou vitre Ousmane Sonko yi. Mhm. par la police dama ne. moom il l'a dénoncé man personnellement. Mhm. xam nga violence. violence kenn bugg ko du man du yow du kenn mais pour. organisation wu état dafa am nu mu. est la police a besoin d'agir de la sorte. koo xam ne il est là tranquillement assis donc il ne cause pas une menace yorul arme yorul dara. qu'est-ce si dire que je ne suis pas d'accord sur ce geste parce que. Euh, loolu dafay montrer une police. Euh, oui oui foofu. les conséquences pouvaient être dramatiques. mais foofu laay foofu waxee ne. li tax ma ne d'accord ma ci. Mhm. ça veut dire que Ousmane Sonko dans son véhicule tey yow yow tey nii. banalement nii soo yoree sa oto di dawal ci circulation bi nga dawal egsi policier arrêté la nga taxaw bu la nee wàcc la oto bi da war a wàcc. mais man attends non attends non non non non attends le professeur a dit mais attends si c'est des condamnés oh, cet acte-là oui mais non non pas compris affaire affaire ah, ñu dama bëgg dama bëgg wax ne tey bu fekkente ne man dama ñëw police arrêté ma wala mu ñëw fekk mu ne la wàccal oto bi da nga war a wàcc par respect par rapport à la police c'est pas la personne bi lay arrêté mais c'est ce que ce corps bi muy représenter la police dans dans une nation comme le Sénégal dañu am il faut que ñu xam ne nous sommes dans un état de droit dama ne Ousmane erreur bi mu def mooy bi policiers yi ñëwee di ko wax ne ko na wàcc ne ko na wàcc mhm. fëgg oto bi fëgg xam nga les images sont là on voit kay fëgg Ousmane di ko fëgg bunt pour mu ubbi si lu qui a refusé d'ouvrir le port portail oto bi bañ seer ne du wàcc oto bi maa ngi koy dégg mu naan ndax c'est un arrestation ak yooyu ndax non mooy demandé ndax c'est un arrestation ñu ne ko non mais comme li ma wax ne mooy biñ ko nee ubbil li mu waroon def bu ko defoon ubbi bunt bi ñu nekk ko Ousmane lii ak lii ak lii Ousmane wàccal wàccal sa oto nga ñëw parce que dañu la du ñu d'accord nga dugg sa oto dem yow kese dañuy ànd ak yow bu fekkonte ne loolu la loolu la def dama ne kon kasiru oto ay vitre du ko am jërëjëf Birame Kodja sànq seen euh, bureau politique bi cadre def nañu conférence de presse euh, on suit s'il vous plaît sànq gars nañu conférence de presse ils ont fait savoir que lu mel nii duñ ko nangooti c'est la dernière fois euh, un discours la boo xam ne on les comprend parce que li ñu dund ak Ousmane flippant à la limite parce que voilà xëy na sax mu bàyyi ay séquelles après on ne jamais mais est-ce que aussi dans un état de droit ay nit mën nañ toog jékki-jékki daal ne dootuñu nangooti lu mel ni venant de la justice ou de la police. constitution bi moo la may droit bu fekkee ñu ngi def li nga xam ni waruñu ko def mu jëm ci yow nga wane résistance loolu c'est consacré par la constitution kenn du nangu lu nga xam ni du dëgg li nga wax dañ ni ko wàccal mu wàcc mais au nom de mais fii dañu nekk vous l'avez dit dans un pays de droit. mais pourquoi police dafa war a am motif pour wax la wàccal. yaa ngi on le voit partout même aux États-Unis taxawal wàccal loolu on le raison. mais fii y' a pas de raison. moom na ma indil benn raison bu war a tax ñu arrêté Ousmane di ko wàccal amul. je suis désolé amul benn raison. c' est des instructions qui ont été données. donc wax nañ ko ban raison moo tax ñu dóor xanaa man doo da ma fàtte. dóor sama oto ci ginnaaw mu bëtt dugg ci biir ban raison la ñu am te maa ngi doon dawal tout tranquillement man ak Toussaint Manga j'ai des témoins mm-hmm. avec le ay Ayib Daffé mais pourquoi ngeen di def loolu ba pare yow nga ñëw bëgg leen défendre premièrement deuxièmement lii di problème bi ñëpp di ko wax man dafa reetaan dafa may jàpp dafa mel na ñun tooguñu fii Amadou Ba toog ni rapport bi existé na que le mu leer naa ñi ñëpp gis ne am na rapport rek kii wax IG IGF ñu indi ko ba mu indi ñii ba ñuy extirper nit. mais justice moo war moo war moo war a àtte kii dafa wax lu am importance nañu xool origine bi mais bu ñu waree àtte ci loolu nga xam ni c'est c'est un fait banal IGE IGF ba pare wax na ko. ñi ñi la ñi la ñi la porté plainte muy wax vingt neuf milliards ñi la porté plainte ñi nga ñi la bind ba bind ci livre ni ma may ñaa kële nga xam ne wax na ci. Euh, Amadou Ba il a il a parlé pourquoi Mame Mbaye Niang a démissionné pourquoi c'est parce que le rapport existe yëfu caaxaan yooyu. ñuy def attends quel rapport. mais rapport bi. ah IGF nga wax yéen na mais loolu mooy sa problème. mais waxu la IGF A ah, ak ah, B. rapport yow un homme qui a 700 000 voix. qui aujourd'hui aspire à la présidence ñu koy toppee nii yow nga koy toppee A ak B. loolu mënoo ko tolérer. dans un état de droit. waaw mais yoon moo war a yoon moo war a àtte aussi yoon war a àtte du ci mbedd mi. c'est pourquoi biñ ko wooyee mu wuy ji. a dit dinaa wuy ji. mais ba tey yóbboogul li nga xam ne leer na fait. mais loolu dañu ko renvoyé tey aussi. ñoom ñoo yéen a ko renvoyé. dañu ko renvoyé en tout cas de toute mhm. mhm. a demandé. mais c'est de notre droit parce que yéen ku seq ak yéen dina jël droit am ba mu jeex. mais li ma bëgg a xam Birame Souleye mooy par rapport ak attitude bi ngeen adopté léegi Ousmane Sonko njëkkee ko ci affaire Adji Sarr bi bi pas aussi les cadres sànq ils ont dit que ne euh, carrément dootuñu nangooti tey interpellation yu mel nii di am li ma bëgg mooy. ñàkk nangu ou mën a nangu est-ce que li tooy du jóge ci yéen dans mesure où ni mu ko waxee euh, violence légitime état moom moo moo ko yor. mais état kenn jox ko violence légitime pour mu koy utiliser contre sa population. amul beneen bu ngeen mën a doxalee budul budul boobu. du ñu ko na. mais buñ ko buñ la buñ ko encadré vous aussi. véritablement da amul argument rek. bàyyi ko mu yàggale rek après da nga bien sûr bàyyi ko mu yàggale. sànq ba tey mu wax dëgg la. allez ma ni on s'est compris hein? on dans un état de droit. oui yoon bi ñuy jalgati ñun du ñu ko nangooti la ñu wax. on ne va plus accepter que police di ñëw di toj ay oto di génne ay nit ñu toog di xoole cette fois-ci c'est passé la prochaine fois ça ne passera pas on l'a dit. Mm-hmm. droit de le dire. parce que joxewu leen benn motif bu tax ngeen extirper ko kuy ñibbi këram ngeen extirper ko de force bu ñu lay wax force de l'ordre mais dañu war a appliquer force bi ci yoon. mais doo ko jël di ko utiliser parce que tu as reçu des instructions ki leen jox instruction il est responsable il est responsable de tout te lépp lu ci mënoon am tey bu mënoon na am ay mort xam nga lii moo indi en mars mu am ay mort mhm. yu mel nii rek ay lu nga xam ni véritablement waru nga ko def nga def mais ñu wax nga ni da jot ay instruction est-ce que waru leen def balle à terre comme on dit parce que aussi ëllëg réew mi mën ngeen ko yor mais est-ce que am intérêt wala dina yomb ci yéen ngeen diriger réew moo xam ne dafa instable ñun ñoo jëkk def balle à waaye ki indi war a indi jàmbur mooy ki topp jàmbur topp ko rek di dóor affaire aji saar wax ay preuve ñëw mu jël ko réfuté ñu xam ni lii état moo nekk ci ginnaaw ñëpp xam ko ba extérieur waa France di ko wax dafa ñaaw ci deru Sénégal dafa ñaaw moom bi ñu koy jox réew mi joxuñu ko woon réew mi pour mu egsi noonu hmm. nous nous pour lui am na fu mu tolloon am na lu mu waxoon tey la mu waxoon yëpp weddi ko mais c'est un problème il faut que nit ñi xippi seen bët di xool il faut que aussi maa koy euh, ñaan. Mhm. mu delloo si xelam pour dialogue am. wax nga sànq Aliou Tine dafa. bonne transition dafa war a dafa war a delloo ci après la après yow la. si xelam yow ki nga xam ni moo moo. ak donc yéen vous êtes prêts à dialoguer. mais donc sur la table. waxtaan ñu dépassé nii. ñun dañu mos a wax ni jàmm la ñu bëgg. ci réew mi parce que réew mi dañ ko war a yore. te buñ ko ci loxo yu nga xam ni jàmm amul pour redresser que day am problème. looloo taxoon keroog bi sëriñ Mountakha waxee dos au mur est ce que vous pas dos au mur temps affaire tar na seen borde bëggu leen cee génn est ce que du loolu. xalaatuñu reculer. ci lu dul yoon nañu continuer di teg lu dul yoon ñu xool. merci beaucoup professeur foofu am na solo li nga doon wax sànq. par rapport toog waxtaan bi. am na solo parce que ñaari cas yëpp maa ngi jégalu de c'est des points de <laughs> l'arrogance ay cuune la ci gis ay cuune. <laughs> ñaari cas xam nga <laughs> dans les deux cas laa ci gis. mais toute l'opposition n'est pas comme ça. ñaari cas yëpp ay cuune laa ci gis et je vais le démontrer. <laughs> parce que dans le cas de Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang je comprends pas pourquoi les avocats de Pastef ou les penseurs de Pastef gisuñu ni tey fi mu nekk nii liñ leen attaqué dañ ko waroon transformer wax ak askan wi ba askan wi comprendre que ce n'est pas une diffamation c'est un dénigrement politique ou politicien. Hmm. je m'explique je parce que bon je suis un intellectuel de haut niveau <laughs> tout le monde le sait. Ah, ci laa ci ci xam ni que ñaari cas yëpp c'est des tournées ay tournées la ñu parce que diffamation a été jugée dans ce cadre la ma mbay Niang amoon na ñu mu porter plainte. waa amoon na ñu ñu porter plainte ba ñu condamné. Mhm. ma ni mais ces gars-là xanaa ñoom mënuñu dem xool les textes juridiques. une diffamation au-delà de trois mois c'est fini c'est dans la poubelle yéen am ngeen temps boo xamante ni gis ngeen ni que cette affaire a été jugée en diffamation Ousmane Sonko s'est référé sur une lecture de livres ou de ou de pré-rapport donc ce qu'il dit ce n'est plus une diffamation c'est un dénigrement politique vous voulez dire que avocat mais ay cuune lañu aussi. mais dans les deux cas ay cuune lañu. non Ousmane Sonko mën na ko bañ a xam. Ah, Ousmane Sonko Ousmane Sonko mën na ko a xam mais ses avocats war xam loolu. man man j'hallucine man je suis dans quel pays où sont ces penseurs mais sénégalais bu man mën a expliquer ni l'affaire a été jugée Mame Mbaye Niang qui est un parent mais personnel taxaw na wax ni. attaqué na ay nit maanaam. mais loolu c'est Mame Mbaye ak d'autres personnes. oui à d'autres personnes cela veut dire que donc si Ousmane Sonko revient ou euh, euh, une autre personne qui parle de ça on n'est plus dans une diffamation on est dans un dénigrement. et que quand on regarde mais les textes boo buggee mën naa la ko wan léegi. mais dans une diffamation ce n'est plus une diffamation c'est un dénigrement te loolu mënoo condamné nit. kon y' a pas de risque à ce que ça. y' a damay togg charme bi ba ni ñi man ci ban école lañ professeur est que njumte parce que man je vois mal les avocats Sonko. bañ a xam loolu. quelque part tey fu mu nekk nii xam nga débat bi fa lañ ko waroon orienté comme ci li ñu wax nii ñoom ñaar. mooy lan il faut un dialogue euh, na euh, il faut un dialogue entre l' opposition républicaine ak ñi diriger réew mi. <laughs> parce que jàmm ci la lépp xaj. xoolal tey mu nekk nii d'ici le mois de juillet il y aura vingt mille sénégalais yoo xam ne nar nañu dee pour les dialyses quelle école nous pour nous devons avoir et nous pouvons avoir. Mm-hmm. sur les dividendes mais des hydrocarbures fan la ñu toll. sur euh, les conseils euh, euh, décentralisés évaluation bi lan la. Mm-hmm. en deux mille vingt quatre fan la ñu jëm. opposition bi la lan la ñu mën a apporter ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñuy wax di ah, ah, l'article mais 27 alinéa 2 et cetera Macky du toog nan la ñu mën a def tey fi mu nekk nii pour indiwaat à la raison sénégalais yi toog qu'on se retrouve parce que ñaar ñi du ñooy ennemi mm-hmm. l'ennemi du Sénégal c'est la pauvreté du Sénégal l'adversaire du Sénégal et des Sénégalais c'est la France je le dis je le répète tey fu nekk nii il ñu waxtaan suñu biir. Alioune Tine li mu wax je le dis et je persiste la solution pour indi paix fii ci Sénégal il faut ñu toogaat. mais pour waxtaan am dialogue aussi il wax wax dëgg am aussi. mais mais ci dialogue boobu ci dialogue boobu ce sera une espèce euh, de tribunal mais populaire sans condamnation ñu xool li nga xamante ne mooy intérêt Sénégal ñu wax ci réew mi doxul. celui qui dit que ni réew mi mi ngi dox tu la racontes nan la ñu mën a def par rapport tey fu mu nekk nii li ñu am ci ressource pour doomu sénégalais yi xool. Mhm. nan la ñuy coupler toutes les synergies pour en faire une seule énergie de développement pour affaire bi jëm ci kanam l'ennemi du Sénégal ce n'est pas Macky Sall bi du Sénégal ce n'est pas Ousmane Sonko doomu Sénégal yëpp ñun ñëpp dañu war a toog ñi am xam-xam ñëpp toog ñu waxtaan. dépasser ces ébats sexuels parce que nde réew bi comme ni ko li muy waxee quatre-vingts pour cent ci ñun ñëpp ay ndaanaan lañu. ça veut dire quoi ay ndaanaan lañu. cela veut tey fi mu nekk nii mais Sénégal li ñuy wax ni maanaam Sonko laal xale bi wala laalul xale bi ça devrait même pas nous intéresser quatre-vingts pour cent ici maanaam dañuy njaaloo donc à partir de là lan la Sénégalais yi soxla. vie bi cher na. Mhm. nan la ñuy def pour vie bi bañ a mais bañ a mais bañ a cher. quelle école républicaine moom la ñu war a xalaat. Mhm. pour mille vingt quatre pour suñu doom yi liggéey. pour qu'on bosse dans le sens de l' adéquation entre la formation académique et mhm. l' employabilité bi sur le terrain. tey fu mu nekk nii nañ ma déglu. quand je dis que la vision mais elle est académique j'ai envie tey fu mu nekk nii mais Sénégal celui qui va diriger le Sénégal en deux mille vingt quatre mu xam ni il nous faut une ville verticale. avec la ville verticale ci la ñu mën a créer plus de cinq millions mais d'emplois que Macky Sall le fasse c'est bien que Ousmane Sonko le fait c'est bien mais tey fu mu nekk nii parce qu'il peut pas faire non non ça veut dire que le débat devrait s'orienter sur les actions économiques les solutions économiques mhm. de santé ainsi de suite et cetera et cetera bu ñu demee ba tey fi mu nii au niveau du camp du président ngay gis maanaam sëñ Mour sëñ Mountakha yëkkati 200 millions sur la Covid. Hmm. c'est euh, euh, euh, sur les inondations ah sëñ Sidi Mokhtar joxe mais un milliard après ñuy wax ni telle personne sàcc na et ainsi de suite sur l'iceberg ils disent que y a 7 0,7 pour cent qui qui correspond à 7 milliards et mooy dégg ay nit ñoo xamante ni ils se permettent de venir à la télévision ah, di. di ridiculiser mais 7 milliards 7 milliards. c'est bon Pape Awa Ndiaye xam nga crèches sur les 14 régions du Sénégal des crèches de haut niveau de millions. Mm-hmm. tey fu il faut que ñu delluwaat sur l' essentiel. l' ñaar ñii nga xamante ne ñoo bokk ndey ak baay moom Sénégal. merci il faut ñu toog les intellectuels toog les politiques toog les chefs religieux toog ñu tegaat réew mi ci yoon buñ ko tegul ci ci yoon par rapport à l'idée de Alioune ñu ñun ñëpp ci jafe-jafe la ñuy nekk. le pays sera. au cas où merci beaucoup Aliou. ce jeu à se faire peur yéen République des Valeurs xam naa ne ça vous répugne à la parce que euh, nekku leen ci loolu dégguñu leen ci mais malheureusement am na fi euh, ñu ngi koy gis tey jii nii euh, faute bi ci yan ñan ngeen koy def mais aussi yéen ban Sénégal ngeen ngeen ngeen gisal ëllëg boo xam ne wute na ak li ñu dund jamono ji. merci bi nga ne ñun nekkuñu ci jeu boobu République des Valeurs yàlla dafa def parti la boo xam ne ci ay principe la ñuy dox boo dee dëgg ku mu dab jox ko ko mm-hmm. mais boo dee dox ci principe faute ku mu dab ne ko yow yaa faute ni nga amee courage ne yow yaa moom dëgg bu subaa kooku nga joxoon dëgg bu ko faute dabee da ngay amaat courage nga ne ko yow yaa am faute mm-hmm. malheureusement on dans un pays bu nga xamante ne ni nit ñi nangu nanu nga ne leen yaa moom dëgg mais nanguñu ñu ne la yow yaa yow yaa faute ñun nag Sénégal bi ñu bëgg aujourd'hui euh, grand bi nga koy wax nee na le dialogue est propice euh, nan def li Alioune wax mais ñun dañu xaw a am tuuti ay réserve par rapport ak Alioune ak ses solution sérieusement mm -hmm. on a vu les propositions de Alioune Tine ci liste euh, législative yi position yi mu ci amoon mhm. ñu bàyyi ñëpp ñu dem waaw yoo nga xamante ni dañuy jël le droit jël les textes égorger leen jël leneen indi. ñun kooku bu dee ci moom la ñu bëgg a basé wu pour tabaxaat wala pour dialogue nous on a de sérieuses réserves par rapport à la personne. ak ses idées ak ak ses démarches la limite certains le taxent même de pyromane. li nu gëm xam nga mooy lan. qui des conflits. voilà am na ñu koy wax. li nu gëm xam nga mooy lan aujourd'hui mën nañu am une occasion pour dialoguer pourquoi. Macky Sall il est à son dernier mandat et il doit partir. moom mënoon na rendre service un grand service au peuple sénégalais. en quoi ne man maa ngi dem mais bëgguma dem bàyyi fi climat bëgg naa bala ma dem ma apaiser climat bi teg lépp ci yoon ku nekk di door fi nga war a jaar ku nekk jaar ci yoon bi nga jaar bu ko defee bu ñu eggee ba 2024 ma organiser leen seen élection ma bàyyi leen dem. ma bàyyi leen loolu pour la postérité muy li nga xamante moom laa ñafe xam ne au moins lii dina rester dans la mm-hmm. postérité moom laa ñafeel Sénégal mais malheureusement nos amis dafa mel ni ils sont pas prêts à ça et Macky Sall n'est pas prêt à ça loolu nag moom mooy premier germe de violence ak d'instabilité bi war a am mm-hmm. bu fekkente ne dañuy jël ay textes di ko manipuler ci lu nga xamante ni nit ñi dañu engagé woon. Mhm. ñu ñëw 2012 14 personnes dee ci nga ñëw nga engagé wu wax ñu dégg waxaat ñu dégg nga ne lii waratu fee am bu ñëwee ba 2013 ñu am débat boobu ñu indilaat ñu ko comme si dañu delluwaat 2011 c'est un grand recul. mais moom ba tey waxagul ah. non waxagul bi. non waxagul mais dafa am indice. Mhm. waxoon nag xam nga dafa toog ñu def ñoom ñu def euh, séminaire méridien président. Mhm. ñu ne. bu ci kenn waxati ñu xëy je pense bi que le premier acte bi ci àdd mooy Sori Kaba. mooy ak Moustapha Diakhaté. ñu écarté leen mais dañu gis ne ñëpp ñuy wax ne Macky Sall mënul def troisième mandat ils ont été écartés mais ñëpp ñuy wax ne Macky Sall mën na def troisième mandat bàyyi nañ leen ñu toog di continuer di wax. même promis waaw <laughs> junju dafa doy borom xel bu doon tonee dafa ne dañuy sanctionné parce que waxoon na bu ci kenn waxati ku wax mën na ku wax mën mënul yëpp lay yemale ñoom ñëpp lay sanctionné mais bu fekkee ne day sanctionné uniquement ñi ne mënul la ba nga ko waxee boo moytul bu dee suba sa ngoon nga réglé nan sa problème bu dee ngoon sa suba nga réglé nan sa problème ba léegi sax ñi ngi def ay meeting meeting de de de d'intronisation. oui euh, euh, à travers. comment comment comment vous appelez ça déjà. d'investiture d'investiture. je vais en quelques secondes. Mm-hmm. parce que. Alioune il a traité Alioune du pyromane. à l'anniversaire non certains le disent. non attendez attendez attendez. à l'anniversaire de Aimé Césaire que vous connaissez un homme de culture. la Martinique. Le premier écrivain noir. Heureusement qu'il y la présence d'Alioune Sinon, le Sénégal allait passer des moments très difficiles. bi nga xamante ni def nañu anniversaire bi il a été invité par Aimé Césaire c' est ce jour là que j'avais découvert Alioune Tine scandale bu ab sénégalais def à l' aéroport sàcc benn butéelu whisky et puis on pensait que c'était Ndiawar qui est décédé. Touré Touré loolu loolu moo ko rey de Rufisque cette honte là te bokk ci heureusement que le Sénégal avait Alioune Tine et j'étais présent j'étais présent à l'anniversaire de Césaire donc euh, puroman pour euh, sauver le Sénégal. donc tey fi mu nekk li dal Alioune Tine nii nit ñi di wax di di wax lu bon. depuis trois jours tu sais que j'en suis victime. d'accord dinaa ci ñëw woo ma ko permettre bàyyi ko mu yàggali. donc euh, euh, voilà maa ngi ko mu yàggali s'il vous plaît. je vous d'accord il faut diluer mes propos. d'accord Alioune <laughs> Tine je l'ai déjà vu une seule fois de ma vie. Mm-hmm. c'était à l'anniversaire de Césaire en Martinique. heureusement qu'il était présent sinon le Sénégal allait vivre dans une mouise merdique dans le mort. merci professeur. xam nga s'il vous plaît d'accord naa ci moom mais xam nga nit mën na jël orientation ba ba ci yàgg. en cours de route mu changer de mhm. cap mais li ñu gis ci mois yi ñu nekk nii. je te dis le monde entier avait parlé même dans l'ultime. ah professeur c'était une honte pour le Sénégal. d'accord s'il vous plaît ok d'accord. boobu ok man nan d'accord ne il a fait une bonne action pour le mhm. Sénégal pour les Sénégalais et cetera mais nit di nga nekk ci yoon ba bu yàgg nga changer cap li ñu gis moo di ne Alioune Tine a changé de cap durant ces derniers mois et position yi muy jël. par rapport à ce qui se fait dans ce pays-là mhm. du position bu médiane du position bu équidistante par rapport aux chapelles politiques loolu c'est constaté mhm. donc bu mu demoon bay dialogue franchement Alioune Tine ñun doyuñu pour modérateur on a ce droit tamit da ñu koy reconnaître Alioune Tine doyuñu pour modérateur Alioune Tine doyuñu pour conduire benn dialogue fii nii si si Sénégal ñun ñun loolu mooy suñu position par contre nag il ne l'a pas demandé on demande un apaisement de l'espace public le premier garant c'est Macky mhm. le premier garant bi nga xam ne moom mënoon taxaw mu siffler la fin de la récréation c'est en faisant en quoi faisant mhm. mu mettre de l'ordre camp ba pare am yenn velléité yi nga xamante nii tamit na taxaw clairement mu prononcé wu ci leeral ko sénégalais yi ba nga xam ne suspicion ambiante bi régné mm-hmm. nit ñi di xëccoog di xataraayu loolu lépp dem ba bal à terre. pour ce qui de la justice. justice. ndax Macky Sall am na ci lum ci mën a def laa bëgg a wax en fait parce que problème yëpp loolu la problème yi xam nga lan la euh, suñ juge dem da nga xam ne ci aar Sénégal la bokkoon. dafa xëy mu ne j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné. Mm -hmm. une justice déclarée démissionnaire nag waxuma ne magistrats yi dañu jaaruñ yoon am na ñu nga xam ne ni c'est des hommes de valeur parce que nag corporation dafa dugg rek ne ñëpp a bon man ñun danoo baax ñii danoo bon loolu amul mais am na ci ñu nga xamante ne nii jëluñu seen responsabilité am na ci ay dossiers yu bëri yu nga xamante ne nii dañu manipuler justice bi pour régler des comptes mm-hmm. yu nga xamante ne nii bu fekkente ne diw la laal mën na procédure bi mën na durer ay at ba ko teg ko quelque te teg tegtaltuwaar boobu yëpp mooy exercer benn épée de Damoclès pour nit ci nit ki pour le tenir mhm. en selle mhm. beneen bi mooy bu fekkee ne ni kii nag moom dañ ko bëgg dans les 48 heures dinañ boucler toute la procédure ba yóbbu ko nungu sin teg ko yooyu pratique yooyu moom moo tax sénégalais am suspicion ci justice bi mais est-ce que justice bi rek la ñuy utiliser pour régler des comptes moi je pense que ne aujourd'hui on a vu l'administration l'administration fiscale mm -hmm. du buggaan kese moom moo moo buggaan kese lañ fiy dégg moom mooy am redressement fiscal quel est problème est-ce que moom kese moo fi am problème mm-hmm. mais dañ si ne c'est un leader politique bu am tele am média mais à chaque fois dafa mel ni dañuy actionner l'administration fiscale pour di régler de comptes politiques donc du justice bi kese. bari na ay corps yoo xam ne aujourd'hui ñi ngi leen di actionner. Mhm. pour régler des corps politiques mais buñ ko jam baaraam rek benn benn corps. ne ñeneen ñi nangam na li nga wax am na solo trop Aziz si yow lay ñëw par rapport ak situation bi ñuy dund ñëpp ne nañu vous êtes les premiers responsables dans la mesure où mënoon ngeen ko éviter wala mën ngeen ci mettre fin. <coughs> Euh, euh, mais euh, quand a. ci propos mi mu wax quand même sànq pour moi c'était un peu exagéré c'est-à-dire quand le professeur dit par rapport à Barthélémy Diaz moi je dis que Barthélémy Diaz dafa wax ne euh, man ndaanaan la président ndaanaan ñun ay ndaanaan lañu mais la bëgg a wax. mais mais en tout cas c'est ce qu'il a dit mais mais d'accord mais professeur est allé plus loin ah. en disant que 80 pour cent des Sénégalais dañuy njaaloo ça c'est extrêmement grave c'est c'est cest mhm. que ça c'est extrêmement grave. je très bien merci beaucoup. voilà avec quelqu'un qui on peut vraiment débattre. merci en tout merci beaucoup. c'est exagéré. très bien merci beaucoup. alors ce que je veux dire par rapport ak ce qui se passe gis nga Mamadou Awa. réew mi comme ni nga wax nii ñun ñoom ñoo ko bokk mhm. kenn amul intérêt fii réew mi takk. kenn personne. Olof Ndiaye day wax ne euh, maanaam li ngay xam ne yow moom ngay xëccu euh, bu amee jafe-jafe nga foog ne fa mën na jóge feneen fu mhm. foofu indil la gàllankoor sax yow. Mhm. kon ñëpp ñoo am intérêt. pour que le Sénégal nekk dëkk jàmm bi ko ñëpp xamee. ñëpp d'accord nañ ne la Sénégal est entouré par une ceinture de feu au niveau en tout cas de la sous-région amul benn dëkk fii bu amul problème ay tension ay guerre ay état ay guerre civile ay problème coup d'état n'en plus finir que Dieu nous en préserve le Sénégal ba fi ñuy toll musul am benn problème. Mhm. tension politique nag buy jot élection dina am tension coow li bëri mais. le maa ngi koy wax sànq on a en 2000. amoon na crainte 2012 pareil. voilà bu élection amee après dem vaquer à leurs occupations c'est ça le Sénégal. mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe moi j'ai dit à un ami ma ne que man personnellement je suis un démocrate et je suis profondément démocrate je veux que ce pays-là. ñu di ko teg ci démocratie démocratie nag n'étant pas naturelle <laughs> ah il faut que aussi ñu koy encadrer pour mu bañ a am ay dérives mm-hmm. te loolu c'est le rôle de l'État je parle pas de parti moi je mm-hmm. parle pas de de ou de PASTEF mais je parle de l'État c'est-à-dire l'État a un rôle régalien bu nga xam ne bii bu waree gérer dafay gérer bu waree doxal dafay doxal il s'est trouvé que État buy gouverner nag ci parti politique xëj nga ngay génne wala coalition de parti ñëw au pouvoir mais il faut que ñuy def des fois le distinguo aujourd'hui Sénégal dañu toll foo xam ne c'est vrai que nit ñi war ñu bëri war nañu wax war nañu wax ak ñi nga xam ne dañuy tooñ war nañu wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ tooñ war nañ wax ak ñi nga xam ne c'est-à-dire war nañu waxtaan daal mais waxtaan bi ñuy wax nii je crois que bu fekkee dañu waxante rek te yàlla tax combien de fois le président de la République a posé des jalons pour que les gens di discuter combien de fois amul benn événement buy xew wala président discours muy def te wootewul pour que nit ñi nag jàpp ñu waxtaan bi ñu defee dialogue politique bi gis ngeen ko le dialogue national après volet dialogue politique gars yi ñëw nañ ñi d'accord ci lii xam nga ci ay 27 points ñu am ay quasi cinq points yoo xam ne juboo nañ. Hmm. peut-être bu dialogue bi romprul ñu continuer peut-être am na lu bari doon nañ ko régler et puis moi je fais des gens qui yi nga xam ne dama wax ne. Sénégal war nañ dépasser ay problème mu élection ci ay problème mu fichier fichier bi nii fichier bi naa fichier bi nële alors que en vérité fichier bi ñuy bi ngay critiquer tey ñu dem élection député wala ñu dem élection locale c'est le même fichier c'est ce fichier boobu si lañ perte les grandes villes. mais là c'est plus un problème de fichier là on parle plus de la volonté d'écarter un adversaire wala wala de forcer fii amuñu lu ñuy euh, un adversaire à éliminer ou pas xam nga réew mi aussi des fois nit ñi dañuy problème su amee il faut qu'on ñu analyser que ci angle yëpp teg en tout cas li nga xam ne mooy dëgg ñu di ko wax man je suis pas je suis d'accord que fii élection présidentielle nit ku nekk am nga droit ne candidat la nit ñi am ci droit mais dañ ko encadrer aussi tey boo amulee 35 ans <laughs> ëppal xam-xam si réew mi. mënoo bokk ëppal xaalis ci réew mi na la ñëpp bëgg mais mënoo bokk parce que loolu la loi la. dañ kon loi boobu aussi moo permettrewul yenn yi bu amee. dañ ko war a nangul tamit ñi nga xam ne mooy la loi li ñuy wax ñu di ko teg bu ñu leen teree nangam parce que ce qui s'est passé événement yi ngay gis nii yëpp coow li yëpp lan moo koy indi dañ lay tere nga bañ tey suñ ne su ma nee damay damay organiser damay damay organiser marche xam nga je reconnais que le Sénégal dafa am ce qu'on appelle droit droit de manifester droit de marche yooyu c'est c'est c'est garanti par la constitution du Sénégal par contre soo amee une manifestation boo war a def mais si d'encadrement moo tax ñu indil la ay ci tegal la ne la pour nga def lii il faut nga nga matal lii ak lii pour que ñu mën la accepter sa sa sa manifestation bu boobaa suñ la ko accepter leen day jël toute la disposition qu'il faut pour que encadrer sa manifestation ba du am problème vous parlez de Kër Massar mais Kër Massar c'est parce que da ngeen nekk dans leen normes ñu accorder ko utiliser ko normalement d'ailleurs la preuve am na sax ay ñu gisoon ñu ne xëj na dañu doon bëgg saboter mais c'est la police qui a pris toute sa responsabilité encadré seen leader jàpp ko doxal ba mu egsi fi mu war a egsi ba ngeen meeting ba pare coow jibul mais yooyu c'est des éléments d'appréciation yoo xam ne il faut ngeen di ko reconnaître aussi mais bu fekkente ne da ngeen demander une autorisation jox ko le préfet moi je dis que ñii di attaquer le préfet préfet bi en matière de droit la préfet dañ ko jox ay documents c'est-à-dire préfet il n'est pas là pour indi ay ay négociation entre les parties c'est pas son rôle d'ailleurs <laughs> on lui donne des documents mu analyser document bi gis ne document bi dafa am jaar na si yoon il donne son aval mu gis ne jaarul si yoon mu def un motif de rejet point barre maintenant quand il fait ça ce qu'il faut comprendre mooy moment bi mu ko defee par rapport à Mbacké ñoom ils ont reconnu saa xamul tax ñu reconnaître parce que ñoom demaat nañ ne d' accord ñu si décision bi préfet bi jël dañ koy yóbbu cour suprême. ay mhm. la de ils ont été encore déboutés. mais pourquoi ñu ne loolu am ba pare ñoom ñu forcer la main na dañuy waxtaan wala dañuy génn ci mbedd mi wala kii loolu moo jaaduwul. merci Aziz c'est ça mais laisse-moi un peu le je pense que y je je parle moins que voilà. vous pensez qu'il a parlé moins que ah, vous. ah ben ben oui ah bon ok je termine donc loolu su amee da ngeen war a d'accord tey bu ñu leen bu ñu la bu ñu leen bu ñu leen autorisé Dakar nga xam ne pour man fii nii bu ay problème di am rek fii la ëppee en vérité kon bu ñu leen d'accord alee fii bu ngeen jumee juumee feneen ñu wax leen. jëlaat leen une autre date. demandé waat teg ko ci ñu bàyyi leen ngeen. marche loolu mooy dëgg en fait le dernier point un dernier tour de table. Euh, Birame ñàkkul ne dégg nga ko depuis démb on en parle benn étude bu benn consortium de journalistes euh, def. ci ay manipulation yu am ci wàllum élection désinformation yu ni mel benn cabinet israélien la ñu wax euh, boo xam ne nee nañ Sénégal sa présidentielle 2019 yi am nañ ci lu luñ luñ ñu ci joué loolu euh, ndax dafay dëggal li ngeen jàppoon au lendemain des élections 2019 que ne am na ci loo xam ne jaaduwul. Euh, dinaa ci yow mais tuuti tuuti rek. waaw s'il vous plaît rapidement tuuti rek. boo wax ko ci affaire Mbacké bi muy wax mais affaire bi dafa am signature bu ëpp yow da nga ni c'est mais pour encadrer signature mu te na la encadrer ay nit signature bu ëpp wala bu wàññeeku doo ko wax nit ki 48 heures après pour pourquoi ñu bàyyi ba jour bi ba ñu déplacer suñu matériel yëpp ñu def yooyu yëpp c'est une manipulation afin de ne pas reproduire ce qui s'était passé à Kër Massar parce que Mbàkke nag dafa waroon joggati Kër Massar <laughs> loolu moo leen affaire la bon concernant li ngay wax ci affaire boobu c'est honteux pour le Sénégal voilà encore une catastrophe c'est-à-dire au fond di bokk ak ay israéliens yu nga xam ne ils sont même pas reconnus c'est-à-dire amuñu benn existence légale yow ñu lay accuser te déggoo ko ci wax ñu ngi ni tekk au lieu ñu wax ci loolu ñu dem di jël ay nit di génn ci ay oto di toj ay oto ñoom dañu leen seenu ci suuf ñu gën a wàcc encore ci suuf véritablement c'est une honte pour le Sénégal loolu nag nañ ko lijjanti ñoom parce que je le disais en 2019 xam nga ñun kenn mënuñu nax nous étions dans les bureaux man léegi lañ ma génne ni ma dootoo nekk président du bureau de vote dama doon nekk président du bureau de vote di xool bi ñu ñëwee ni moom premier il disait deuxième j'ai dit non j'ai tout de suite non suñu bureau politique bi ñu ñëwee toog wax Ablaye Niane wax ma ni ko Ablaye Niane li ngay wax bu mënul tekk c'est totalement impossible mais parce que on a reçu des PV on a reçu beaucoup de choses mais foofu xam nga bon on ne sait pas parce que nag àndoon nag ñu ñeneen ñu nga xam ni Ousmane Sonko est de bonne foi dañu ko yar Idrissa bu ko wooyee daf naan ko sama mag nga fekk am na angi su roche loolu laa koy wax ni ko fii fokk nga sol mbubum caay caay sogaa mën a def ak gaa yi parce que yarute boobu boo leen ko waree dañu lay jaar feneen fu nga xam ne waruñu la fa jaar donc bi ñu ñëwee j'ai dit que lii c'est totalement faux mais ils ont validé et passé aujourd'hui Sénégal lépp loo fi def dina la rattraper te loolu c'est une entre pour le Sénégal je suis désolé amul benn yoon bu nga xam ni loolu mos na fi am tey ñu ngi wax israéliens yi démb ñu ngi wax euh, commande d'arme boobu ba léegi kenn waxu ci dara muy lu nga xam ni lu doy waar la di traité ak ay nit ñoo nga xam ni il sont pas fréquentables loolu joxuñu ko woon réew mi pour mu jaarale ko foofu je suis désolé mais war na delloo si xelam dialogue bi ngay wax aussi Aliou bu fekkee la personne de Alioune man ne m'intéresse pas. Mhm. li ma intéressé mooy li mu wax dafa ni nañu indi jàmm nañu dialogué même bu fekkoon bandi bu jóge fële moo ko wax li mu wax laay jàpp waxul nag ni moom moo war a jiite jalog bi mhm. mais dafa ni nañu indi jàmm ci réew mi. kooku Alioune war na ko wax. sëriñ si waat na ko na ko wax te dinañ ko wax bu ko defee jàmm am. parce que président Macky Sall il faut ñu wàññi loxo. professeur désinformation manipulation en temps d' élection avant après mel na ne ay pratique la yoo xam ne ñu ngi gagné du terrain euh, ñàkkul ne sax. <laughs> j'en suis ah, voilà allez-y. j'en suis victime parce que depuis 72 heures les éléments de Pastef waxtaan naa ci ak biram ñoo ngi wax ni le président Macky Sall daf ma jox 2 milliards 500 millions. c'est beaucoup d'argent ça. c'est beaucoup d'argent jëf di suma suma xarit suma xarit yeeg ku nekk yaa ngi may woo. 500 moom nous ku nekk rek 500 millions. fu mu nekk nii suma mbokk yeeg suma xarit ñi nga xamante ni maanaam dañuy saboté. nee na ku ci nekk yaa ngi laaj sa wàll. li ma bëgg xamal Sénégalais yi bu fekkee ni nit mas na ma ger ci àdduna. Mm-hmm. yàlla bu ma gisanteeg sëñ Tuubaa àdduna ak nit laa wax. rawatina le président Macky Sall le président Macky Sall yàlla def na benn yoon laa ko mus a gis et j'étais le cinquième orateur à la concertation de Diamniadio sur les divisions du hydrocarbures keroog laa def intervention de vingt minutes ci la ma découvrir woo suma cousin de sang qui était le premier ministre li kii la moo tax xamu leen ko mu ni ko sama cousin keroog ñoom la ñu waxtaan je me ma proposé wu pour continuer mes rapport ci la def deux rapports sur les hydrocarbures du Sénégal Macky Sall nekk au Cap un de mes meilleurs amis nekk le gendarme mbay Diouf nekk au palais xam ni maanaam président xam na ma ci moom le président jaar pour laaj ko mes rapports rapports yi dama ko may waa Sénégal Macky Sall jox mu ci un centime. mais pour le cas présent. pour le cas yan propos ñoo la valoir yooyu critique yooyu. Euh, accusation très bien cela veut dire que dañ ma invité ci li ci dëkk bi ñu ni ma est-ce que le président Ousmane Sonko war na wuy ji euh, à la justice ma ni ma joxe deux points de vue bu demul il peut être condamné par contumace. Mm-hmm. te war na dem mooy deuxième élément de solution bi ma joxe. war na dem mooy lan. nee na demain dafa bëgg a nekk président de la république il faut mu respecter les institutions mhm. de notre démocratie mais judiciaire c'est ce que j'ai dit loola laa wax mu am nag ñoo xamante ni lay mu mënatuma leen tudde sax ay éléments de Pastef pour man c'est des pestiférés xamuñ ma musuñu ma gis ci àdduna lu dul ci télé bi mhm. te analyse yi may def nii yëpp amul benn analyse bu ma mus def ba épingler Ousmane Sonko benn article la mës a bind ci àdduna épingler Ousmane Sonko et le président Macky Sall en même temps. Mm -hmm. je les avais traités de larrons de la République parce qu'ils ne comprennent pas que la solution Sëñ Touba la. démontrer ko def ci un article kilométrique. Mhm. foofu la mës a waxee en même temps j'ai fait une analyse. en parallèle entre Ousmane Sonko li muy proposé ak li Macky di def ma ni leen ñoom bu ñu bëggee réussir la résultante de la solution Sëñ Touba la musuma taxaw ci àdduna à part loolu critiquer suma président critiquer Ousmane Sonko man je donne pas mon opinion mon opinion ne ko ñëpp xam Sëñ Touba la je donne des avis damay jël une situation analyser ko xoola li nga xamante ni sur le plan statistique moom mhm. moo am xam nga un mois avant les élections présidentielles envoyé naa na mes analyses yow ak Ben Mokhtar ak ñeneen mhm. wax ni le président Macky Sall va gagner à 58 virgule il a gagné à 58 virgule 62 mhm. je suis le premier intellectuel ci législative yi ñëw fii nga invité la ma ne Macky Sall va gagner avec une une majorité mais relative bu demee quelque temps y aura une défection tudd turu ba Pape Diop demee na noonu wala demeewul noonu. <laughs> c'est comme ça que ça s'est passé. merci moi je ne prends pas position ni pour Macky Sall nii pour Ousmane Sonko damay xool Sénégal li nga xamante ni maanaam mooy baax moo wax ko. tey fi mu nekk nii Sénégal li koy baaxal mooy li Alioune Tine wax. Mm-hmm. je ne le connais nii def nii de dans benn yoon la ñu mus a tase muy anniversaire maanaam MSCR. Mm-hmm. te li mu proposé. il n'a pas dit que moom mooy nekk chef mun nañu jël n'importe quel sénégalais. nécessité waxtaan daal la wax. ñun il faut ñu waxtaan parce que tey bu ma gisee suma deux frères yi damay xam ni ñoom dañu bëgg Sénégal. Mm-hmm. kii far ci Macky Sall kii far ci Ousmane Sonko. mais loolooy démocratie. jërëjëf professeur merci et à partir et à partir de là. oui pour terminer parce que tey fi mu nekk nii. oui c'est vrai ah pour terminer li ma bëgg a wax sénégalais yi xam ko mooy kii tooñ na ma may jéggal na ko ngir jëmmi Sëñ Tuubaa. Macky Sall mosuma jox deux milliards cinq cent millions. leer na kenn mosuma jox xaalis. léegi nag li may ñaan waa ñi nga xamante ni ñoo nekk euh, dans la gouvernance ak ñi nekk maanaam dans l'opposition. Mm-hmm. nañu teg ay nañu tek ay solution ci taabal ji. man maa ngi fi xam nga li ma indi Sénégal mais depuis quelque temps. Mm-hmm. j'étais souffrant looloo tax ma jógee. dans l'océan Indien ñëw pour faju dans ma médecine ndax man dama gëm ni nous avons les meilleurs médecins du Sénégal. merci professeur loolu ça coïncide avec l'ère de Macky Sall. ma ni maanaam tubaab yi ñoom ñoo ñu man loolu tax ma fay ay millions pour ñëw faju si. madame madame Sénégal. pour terminer suba mooy magalu Kazu Rajab. Mhm. maa ngi invité ñëpp dañ ma fekk ci yoonu Darou Rahman Kër Mère Badiane Soxna Oumy Touba. boo leen ñëwee ma teral leen incha allah. di ñaan yàlla suñu kasi di di ñaan rajab bi. Mhm. yàlla sotti ci ndox mu sedd ba accident maanaam du am. te nañu fexe ba dialogue bii nga xamante ni wax nañ ko. Mhm. nañ ko def rapidement. jaral na ma fu ma nekk ci àdduna jëlaat avion. jërëjëf Aliou pour joxe maanaam. Euh, ñaari mbir ñoo am ci wàllum euh, business désinformation. Mhm. ak manipulation des masses. Euh, bu dee wàllu désinformation je pense que. dund ngeen ko ci local yi passé ou pas législative yi passé mhm. mais aussi là il s'agit euh, d'un fait plus grave encore boo xam ne ay nit wax nañ ko mu jóge ci nguur gi mhm. jëm ci nit ñi pour seen intention de vote ñu war ko mën a soppi ay mécanismes yoo xam ne doon nañ ko def ci élection yi passé moom am ci mhm. conséquence ci élection présidentielle yi euh, na na naka nga ko gisee loo ci xalaat loolu euh, bon ci manipulation des masses loolu dañ ko déggandoo comme ñëpp ñu xëy ñu ne y a une société RFI je pense bien. bu ko wax. moi je pense que ne li ñu war a njëkk def mooy constituer une commission d' enquête parlementaire wala nu mu mënti nekk. député nga interpellé waaw ñu gëstu loolu ba xam lan la. Mm-hmm. parce que bi ma bi euh, mënuñu ko dàq mais tamit mënuñu ne am na. Mm-hmm. de toute façon segam États-Unis la première puissance au monde mm-hmm. ñooy dem ba ne seen bit ñi fal Trump. Russie dafa manipuler élection yi. kon ñun ñi nga xamante ni amuñu moyen wu États-Unis amuñu may kii kon mën nañu daal. Mhm. mais waxuñu daf ñu daal mais dem ne comme junj nañ ko ba tudd ci société tudd ci nit. la première chose affaire moo di ne parce que nag ñu mën a nekk di war a jongante am ku nga xamante ni dafay am départ boo nga xamante ni nii du départ boo xam ne daf ko. am ci légitimité wala ci yoon mais départ boo xam ne préfabriqué la koy amee mu mel ni suba yoo xam ne dañuy dañuy xaw ma nu ñu koy waxee nii bu nuy départ kii day mayee cinquante mètres kii mayee vingt cinq mètres. Mm, mm, mm, dafa loolu lay niroon en réalité. ils avance. ils en avance loolu nag dañuy def enquête enquête moo ko mën a kii indépendante si le faut parlementaire. j'espère que Thierno ça ne fera pas que de ceux qui vont porter ce combat. sûrement ko ciy dégg. moom moom li ma la wax sànq rek gis nga ñun. fu ñu dëgg dab ku ko moom dina la ko jox bu toor amee tamit ku toor di amuñu amuñu xofu nela la yow yaa yow yaa toor li ngay wax ci on en a été on a euh, manipulation de masse bi euh, est-ce que est-ce que Macky Sall kese la mm-hmm. doyen wax na ko sama mbokk past waa Pastef bi dañuy gis ne à chaque fois nga wax la nga xamante ne nii arrangé wu leen ñaari méthode lay am soit ñu sosal la wala soit ñu saaga la est-ce que nit wax na eh xalaatam kese est-ce que loolu war na ko jural saaga wala fental ko lu nga xamante ne nii kenn xamul. loolu est-ce que waa Pastef fii la. loolu ci manipulation la aussi ah. maanaam maanaam ay nit mën nañu jël ay nit fay leen ñu bëgg a Pastef aussi def la même chose. d'accord dans le cadre l'élément que j'ai non xam nga ñun il est de Pastef. moom laa wax xam nga ñun dañu nekk ci. Euh, d'abord il est de Pastef. d'accord il n'est pas du bureau. <laughs> mais même s'il n'est pas du bureau on a discuté. xam nga dañu nekk ci jeu politique bi. Mm-hmm. te nekk ci nekk ak nit ñi nekk ak ñoom ci cité bi ku def lu nekk xam nañ ko. par contre Ousmane Sonko il a dit que les pas de Yewwi ak Wallu travaillent pour Macky Sall. voilà loolu ça vous a vraiment porté préjudice. voilà te xam nga lu ci gën a graaw xam nga lu ci gën a graaw boo waxee nit ki nga nga sosal nit ki. Hmm. man nee naa sax euh, ñi ànd ak moom ne lui rende pas un service. Hmm. parce que bu ñu ko rendre un service ba mu waxee loolu bu ñu ko rectifié woon kon amaana kon tey mën na am. du am problème tey ak Mame Mbaye Niang mhm. buñ ko rectifié woon mais dañ ko tàccu ne wéy c'est un grand stratège gis ngeen ni mu def waa aar on on ne peut pas être stratège dans le mensonge c'est immonde la balance seen faveur bu fekkoon ne on ne sait jamais mais li ci gën a garaaw xam nga lan la dès le lendemain ñoom waa ah euh, wallu yaaw yi danu bind ne Aar Sénégal a reçu 900 million de Macky Sall plus des 4-4 moom la ñuy ak campagne. kan moo loolu. waa Aar ñoom ñoom la. ñoom la c'est trop. waa Aar la parce que seen leader moo xëy wax. le lendemain bi et puis li gën a garaaw mooy lan nga tooñ ay gor sosal leen. ci mhm. n'as pas la grandeur nga walbatiku ne excusez-moi dama juum mais xam nga la la ci teg souffrez comme vous mu daa xam nga souffrez comme vous voulez boo ko dee teg ci olof mm. ci olof pur mooy maa tey mm, mm. maa tey nga sosol ay gor li nga wax yow mi ko wax xam nga ne du dëkk ki nga koy wax xam nga ne ëppoo ko valeur mm-hmm. ki nga koy wax ñi nga ko wax yow leer na ne boo tëggee sa dëkkanteeg yàlla nga tëju sa néeg xam nga ne ñi nga koy wax ëppoo leen valeur je ne pense pas que ne dans ce pays. Sonko peut peut oser dire ne moo ëpp valeur Thierno Alassane Sall. je ne pense pas que ne mën na taxaw ne moo ëpp valeur suy dem. mais su woon wax politique rek. non xam nga politique mais kon bu fekkee noonu la. bu fekkente noonu la comme dañuy kii. kon tamit ñun dañuy war a taxaw ne kon bu leen Macky Sall dooreeku kon souffrez comme comme ils warul demee noonu. Mhm. ñun dañu ñun dañu ñëw ñu soobu ci langue politique bi ne li fi doon am. dafa sàppi sénégalais yi. dañuy indi lu bees indi lu bees mooy ñuy doxe dëgg di waxe dëgg mais bu fekkente ne dañu ñëw ñu ne li fi doon am baaxul. merci beaucoup dañ ko war a dindi mais di def pire que ñoom di joxante ay coups yu nga xamante ne nii irrégulier. Mm-hmm. di sos di fent parce que simplement bëgg nga handicapé sa sa sa sa adversaire. loolu nee na. kon bu beneen yoonee yow it buñ la dóoreeku. nangul non nangul bul jooy. jërëjëf. Aziz affaire bi doy na war de li ñu wax ci élection 2019 yi ak sa cabinet israélien loolu loo ci loo ci loo ciy wax. oui. Euh, ah, ñu bàyyi ko mu yeggali. s'il vous plaît il mhm. la ñu ay duulkat la ñu. <laughs> déedéet professeur na rafet man musuma jot milliard. oui c'est vrai métti na la mais. non ça m'a fait mal ça fait mal à ma nga nee baal nga ko. Aziz, allez-y. oui. Mhm. ça fait mal. merci beaucoup euh, Mamadou Awa. Euh, je crois que aussi il va falloir aussi que bu ñu bu ñu jotee une information aussi avant quoi que ce soit. Mm que les gens aussi di analyser di réfléchir. Sénégal vous avez une population bu nga xam ne quasi 70 pour cent yi c'est des analphabètes. Mm-hmm. du du du samay waxu bopp en fait c'est des chiffres yu nga xam ne ñoo ko déterminer wax ko pour moom ça veut dire quoi élection fii Sénégal man nekk naa mandataire élection yu bëri yu nga xam ne damay fekkee élection bi du début ba dépouillement ba ñuy afficher. Mm-hmm. nit ñi dañuy ñëw di voter. ba ñu pare ñu bu ñu demee ba war a kii ñu woote ci biti ay scrutateurs ñu ñëw toog ñuy dépouiller benn par benn je pa maa ngi wax ñi may wax ñu may dégg je peux prendre le bureau de vote de l'école Kër Daouda Sarr nga xam ne fa laay voté ñi nga xam ne ñoo gañe ak ñi nga xam ne ñoo perte ñépp ñu xool dañuy toog di wàññ benn par benn ba mu jeex ñu jàpp ne ñii ñoo am lii ñii ñoo falu donc benn manipulation amul foofu. mais ce dont il est question. c'est pas le bouton mais en amont. maanaam maanaam benn candidat par exemple ba yàqal ko. mais non xam nga fii foofu lañu wax ne en xam nga bu fekkee dañuy wax. bu fekkee dañuy wax ay en amont comme vous dites. Mhm. ay candidat bu nga xam ne dañ koy waxal pour yàqal ko. mais comme bu fekkee loolu la rek ñun ñooy ñooy victime numéro un. Mm-hmm. oui parce que fii la ñuy jël président Macky Sall luñ ko waxalul amul. luñ ñu dul wax ni yow mooy secrétaire général di tous les jours mais li ñuy wax ni mooy mettre des moyens en place voilà def ay affaire pour xam nga atteindre le plus de de kii fait de cible possible. xam nga xam nga man euh, dama bokk si ñi nga xam ne. lépp lu nga xam ne man maanaam wóoruma quoi. Mhm. du ma si joxe un avis. moo tax Aliou ne def benn commission d'enquête ma si def un avis maanaam justifié wax ne lii moo ci am lële amu ci duma ko def parce que lu ma maîtriser wul la. Mhm. du ma wax ci lu ma xamul. Mhm. mais pour biir vrai au Sénégal ak lu ñu mënti wax les élections se passent très bien du ñàkk mu am des irrégularités. <laughs> yu nga xam ne c'est lié day am parce que moi je toujours que la vie d'un homme de, de la vie des êtres là gënu mm-hmm. nous sommes mënuñu def lu parfait mm-hmm. raison pour laquelle ñuy wax ne la la perfection n'est pas de l'ordre de l'humain mm-hmm. il faut que ñuy comprendre que ne ñun ay doom aadama lañ ay nit lañu on est censé capable de faire des erreurs yow da ngay ñëw tey sa kër tracé defar expliquer ba mu leer ne lii laa bëgg ñu defal la ki nga koy dénk mu di ko def mu juum de bonne foi mais tant que njuumte la garaaw mais il parle de yow boo ñëwee di waaw c'est-à-dire dama bëgg wax ne du problème dañuy manipuler fii yaa amul dara lu ñuy manipuler fii si askan wi amul. ci sama gëm-gëm man amul maintenant que nag am na benn journal bu wax parce que RFI la supposons xëy na dinañ ko jox crédit bi ñu bu ñu dul leen jox yéen parce que des fois. information du du RFI en fait maanaam benn consortium de journaliste yu bëri la am benn waaw ko. waaw dañ ko je mais dama ne. xam nga mais à la base des journalistes. xam nga fii ñaata information ñoom ñoom la ay ay consortium génne. Mhm. ñu gis si de la manipulation. gis si de amoon na bu de la milliards gis si de la manipulation à haute échelle. Mhm. pour déstabiliser et su boo gisee may wax ne no responsable mooy xam l'état mooy la société civile mooy l'opposition mooy la classe marine muy ñëpp au Sénégal. Mhm. il se trouve que aujourd'hui Sénégal dafa nekk vers les rampes de l'émergence. ba pare Sénégal dafa am ay ressources yu nga xam ne àdduna bi moom lañ soxla. c'est ça la vérité des faits. Mm-hmm. mooy gis nañ ne ah Sénégal il paraît que dañu am pétrole à gogo. Mm-hmm. ñu ne Sénégal dafa am zircon ñu ne Sénégal dafa am. gaz mm-hmm. or. am cest nous avons lépp lu nga xam ne moom la ñu ñoom soxla moom lañ et que ils tous. capable de manipuler jaay jënd joxe leen pour mm. dugal leen fu nga xam ne ëllëg nañu salfaañe réew mi ñoom ñu trouver si leur compte il a raison dans la mesure où quand tu regardes mais le Covid mm-hmm. y a eu beaucoup de journalistes qui ont parlé mais de vaccin et ça n'existait pas absolument donc ce qu'il dit là vaut mieux que cette commission même d'enquête mm-hmm. démocratique ko en place pour vérifier parce que ce que Aziz dit c'est vrai il peut y avoir un lobby contre le Sénégal mm-hmm. que le Sénégal dispose de tout ce qu'il a dit. Important. Il faut que nous soyons voilà le Covid c'est juste un exemple. Mais très bien donc foofu laay waxee ne. Hmm. du problème wu parce que tey bu Sénégal prospérer euh, euh Lo da si bénéficier wu. tranquillement te xam nga man li ma d'accordul mooy maanaam rejet systématique. Hmm. parce que man du ma wax ne waa Pastef du ma leen ñëw rejeté leen ay waa Pastef baaxuñu ay di dafa ne ay sénégalais fa ne. donc dañ ñun ñëpp suñuy njaboot sax dañ ciy ne. si ñoom seen i seen xam ne kay ku nekk ben voilà loo Sénégal moo bindoo noonu en fait mais il faut que ñu comprendre aussi comme bu wax ne nous sommes dans un état démocratique. Merci donc euh, les gens aussi man ni ma amee le soin et la latitude de choisir mon mhm. noonu laay d'accordé euh, Michel Lo am la latitude de choisir son camp. par conséquent fi may daanele mooy ñu jàpp ne Sénégal. ñun ñëm ñoo ko bokk et que bu ñu waree waxtaan nañu waxtaan mais mu nekk un rapport sincère quand le président appelle bu président wootee pour dialogue ñoom nañuy accepter le la et puis preuve bi ma si joxe bu ndaw rek nous prenons prenons l'exemple du président Wade wadd bu Sénégal masaan am jal am problème mhm. problème attends fi may waxee bokk ak fi ngeen di comprendre c'est-à-dire dama bëggoon ne bu Sénégal di am problème laa wax mhm. seeni intérêt yéen personnes yi nun ñëpp suñu intérêt dafa war a dafa war a pour l'intérêt supérieur de la nation foofu laay waxee ne merci beaucoup même si vous voulez même si vous pas ku ci nekk bàyyi la nga euh, sant bàyyi la nga tàggoo merci beaucoup tàggoo bi may wax mooy mooy wax ni bon élection d'accord ce qui s'est passé au Fouta on l'a bu nga xam ni matul woon 400 personnes mu doublé en un temps record yooyu yëpp c'est des volontés manifestes de manipuler les élections càcc gu wér la ñuy gis mais yooyu yëpp dinañu xool ba loolu amu euh, ñu tekk fële république des valeurs j'aime bien Thierno Alassane na man valeur yi moo mënul comprendre nga bëgg ko bu comparer ak Ousmane Sonko mooy koo xam ni yaa ngi woon ak Macky Sall nii tant qu'il y avait pas de problème yéen a ngi fi comme Mimi Touré ça je peux pas le comprendre léegi mënoo génn ci Macky Sall ñëw bëgg ñu jaay valeur ba ëppale ñëpp valeur. jërëjëf véritablement je crois pas à ça. merci beaucoup Aliou merci beaucoup c'est un plaisir faire cette émission avec vous. waaw c'est euh, le plaisir est partagé donc saa yu ñu fi ñëwee vraiment. Euh, discussion yi dina ku nekk dangay ngay sa chapelle. Mm-hmm. mais le Sénégal nous appartient tous. Ah, te du kenn moo ko mën a développer kenn amul benn chapelle politique bu ne moom buñ ko yeb yenee Sénégal rek mën na daw ak moom. Mm-hmm. non ku ko wax da ngay nax sa bopp Sénégal ñëpp ciy dugal seen loxo. bon li mu wax sànq nekkoon nag Macky Sall mais xam na ne nekkoon nañu Macky Sall mais lan fa waroon a bañ dan nañ ko doon bañ. Hmm. ban ba nga xam ne ne nekk ak Macky Sall garantie tout suñuy valeur dañu jóg ñu bàyyi ko. moi je pense que ne dans l'histoire de ce pays là koo xamante ni moo ñëw fekk ay émoluments directeur ARTP salaire am nekk 20 millions mu ñëw ne Macky Sall wàññil ma ko. kooku boo ko ne boo ko dee dingat ay valeur am kon xamoon lan mooy valeur koo xamante ku nekk xam nga lan mooy Farba euh, Ngom tamit wax na tamit ci yéen ne le titre 1477 xaw ma nee na Sonko am na lu mu ci liggéey kon tamit yéen tamit lijjanti ngeen ah, non non il ma daf ma sànni flèche Farba ah, wax na ci Alsaan mais wax na tamit ci sa leader kon boo ma nee lijjantil loolu mm-hmm. man tamit ma ne la lijjantil tamit li mu wax sa leader mais dama lay wax ne ku nekk waaw ñun ñëpp xam na ne bu amoon kon ñu wax ko biram ñun ñëpp xam na ne Farba Ngom Farba Ngom li muy wax bu amoon mu wax ko damaa ànd ak diw ñu seeti benn nit mu am lu mu ñu jox kan la. Farba tàmm na loolu. lu mu ñu jox war na ko ci Sonko war na ko ci Mimi Touré lu mu jox kan la mais intéressé wu leen li leen intéressé mooy xool nañ fu nu mën a peinturer peinture bu ñuul Alassane Sall. Mhm. amuñu ko ñu jafandu ci benn Farba Ngom. merci beaucoup euh, li may euh, li may il m'a fait perdre le fil de de de de mon truc. Euh, tàggatoo rek mu voilà voilà merci beaucoup. une prochaine fois bu soobee yàlla. non dama doon wax ne. Mhm. Sénégal kun timloo ne contre euh, pétrolier. Mhm. des milliards et milliards. Mhm. nga ne dama ko signé parce que nekkul. intérêt Sénégal intérêt te nga xam ne boo signé woon tey da ngay dem toog di nelaw. nga ñëw bañ loolu ñëw toog di daw ci askan wi. yaa deux semaines il était dans le Fouta. Mm-hmm. loolu mënoon na ko ci bañ a fekk bu amuloon ay valeur jërëjëf professeur ñu ngi sant bu baax yow tamit. voilà man euh, fi may tëjee. mooy euh, maa ngi ñaan ñi nga xamante ni maanaam ils font de la politique ils parlent du Sénégal. Mm-hmm. que bàyyi les euh, maanaam les guéguerres mais politiciennes entre ñoom. parce que y' a y' a des enjeux très importants sur lesquels ci la ñu ci la ñu war a wax. Mm-hmm. j'interpelle par sa par ce biais le président Macky Sall di ko ñaan li nga xamante ni maanaam Alioune wax na ko. nañ ko mettre en place rapidement Merci. qui sera le président je ne sais pas mais am nañu ay des synergies fii ci Sénégal bu leen boolee dinañu jur une énergie de développement sérieux mais du Sénégal loolu moom on en a besoin pour que la paix se pérennise dans ce pays. Donc je demande solennellement au président Macky Sall que rapidement qu'on fasse un second dialogue national. Merci. Aziz, votre dernier mot en quelques secondes. La sincérité, je Merci Mamoudou Awa. D'abord, euh, vous sincère. féliciter par euh, vraiment la façon dont vous tenir euh, cette émission. Je remercier aussi mes co-débatteurs. Euh, d'y am une admiration la l'endroit de M. Thiam. de par sa professeur de sa, exceptionnel. Voilà, mais de sa modestie. Mm de de se repentir sur à, en direct. Mm -hmm. c'est la c'est des valeurs des la grands hommes. Donc euh, vraiment je je salue ces, cet état d'esprit. Mm-hmm. di nuyu aussi mes mes amis monsieur monsieur Lo. di leen nuyu di wax rek ne. man dama am lu ma gëm ci Sénégal mooy réew moo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. comme réew la ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn gënul patriote kenn mm-hmm. nañu nañuy nañuy nañuy rafetal euh, di di xam ne nag président de la république du Sénégal Macky Sall yàlla dafa def élection 2012 mu dagaan baatu askan bi par un plan bu ñuy tuddee yoonu yokkutee mu mm-hmm. gagné élection yi au second tour jël réew mi. 2011 mm-hmm. 2000 mu indi un plan. tuddee ko le plan Sénégal émergent mu nekk la référentiel des politiques publiques mhm. mu nekk benn vision bu am solo bu nga xam ne si lañ tëgg Sénégal euh, gis ngeen tey ku waxal yàlla bu la neexee nag nga nga tëdd ne gisuma jant bi mm-hmm. mais le président de la République par rapport à cette politique de de la vision du PSE mm est en train vraiment de changer la face du Sénégal euh, ci ay réalisation yu am solo mhm. ba pare liggéey lu bari sur le plan de l'équité territoriale cest loolu dafa am solo ma bëgg di wax ne nañuy bàyyi xel réew mi te képp kuy ñëwaat mhm. moo xam yàlla rek moo xam kuy mhm. falu ak ku dul falu mais réew mi ñoo ko bokk yaa un existant qui est là bu nga xam ne dañ ko hérité de de Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade tey Macky Sall keneen ku fi nekkaat suba da nga fi war a fekk loolu muy existant boo xam ne da ngay ñëw pour yokk ko maintenant dire que nag réew mi dañ ko war a salfaañe dañ ko war a rajaxe loolu duñ ko seetaan duñ ko nangu duñ ko seetaan te duñ ko seetaan duñ ko nangu ñi nga xam ne nag ils ont un projet euh, extrêmement dangereux di ko jëmale si nos chefs religieux il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments parce que loolu moom dafa ma metti quoi non non loolu dafa ma metti dafa ma metti quoi mais s'il vous plaît je termine mais li muy tàggatoo kenn waxul donc laisse-moi terminer rek donc dama bëgg a wax ne dama bëgg wax ne rek je termine par là je termine par la pour laisser le doyen mooy wax rek ne euh, gis nga Sénégal li ma waxoon sànq li ma wax li ma waxoon sànq li ma waxoon sànq laay waxaat le Sénégal est un pays qui se culturellement parce que dañu am ay figures emblématiques yoo xam ne sur le plan de la religion ñooy téye réew mi ci fànn yu bari par conséquent ñooñu dañu war a jox respect ak considération figure kasu rajab na Sénégalais yi yëpp jëm Touba. fekk ma ci yoonu Dar Rahman Kër Mère Badiane soxna Oumy Touba beneen bi mooy figure emblématique mooy appel bi appelu maam limaam bi. Mhm. bu ñu defee kasu rajab trois jours appelé. loolu mooy rassembler Sénégal. ça na ma nit ñi fekk Touba yoonu Dar Rahman kër soxna Oumy Touba mu sëñ Fall. buñ paree nañu dem madame Diamalay. jërëjëf. lii daal mooy Sénégal. mu ngoog lii mooy Sénégal. lii mooy Sénégal di sant bu baax a baax ñëpp merci. dialogue bi la am rapidement. jërëjëf incha allah rabi di sant ñëpp di dajal xames bi di ñëw ci beneen numéro de waat ak yeneen gan yeneen thème de discussion jaa ngeen jëf merci beaucoup. <laughs>